dellu waat nañ ak yéen ci jataay yi nga xam ne waa daayira muxaddamatul xidma bi yor liggéey jumaa ji ñoo koy taxawee fii ci jumaa ji waxtu wu nekk ci bis bu nekk ci heure bi ñuy jël ay tomb yoo xam ne yu fasantikoo la tomb yoo xam ne dinañ ci jàngat lépp loo xam ne aju na ci suñ dundu àdduna si waaye itam dinañ ci jàngat lépp loo xam ne aju na ci dund gële ñu jëm muy dund àllaaxira muy ay fatwaay itam yoo xam ne dañ ci ubbi ay laaj ak i tontu wut ay boroomi xam-xam itam yoo xam ne ñu ko mën a taxawe la ñu mën a taxawe wàllu googu la ngir ñuy taxawe tomb yooyu tey jii nag di ajjuma fukki fan ak juróom benn ci weeru koor ñu war a indiwaat tomb boo xam ne moom itam ci biir tomb yooyu bokk na ci yi nga xam ne moo gën a am solo muy duruusun wa ibar min xayaati Cheikh al ay bind ak i njàngat ci dund suñu sang bu tedd bii di cheikhuna cheikh ahmad bamba radiallahu taala an ku ne xam na ne sëriñ bi ci boppam dundam gépp kiimaan la kon ñi aju ci moom war nañuy jàngat saa su nekk ak dundam yenn bind lañ ci mën a jële xam naa du neex a waaye ñu jéem tegu ci tànk yam awoon ndaxte ginnaaw moom jàngale na ba jóge bind bàyyi kon dafa mel ne lim fi bàyyi warees na cee mën a aw ki ñu war a defal waxtaan wi nag di sëriñ Mamour Hamdi di ku ñu miin ci jataay bii di ku ñu miin tamit ci taxawe lu mel nii mel ne tomb yi mu war a waxtaane rek ci biir waxtaan wi ginnaaw bu indee ab laytaay boo xam ne da koy le waxtaan wi dana indi ab nubza ci dunduk sëriñ Tuuba radiyallahu taala anhu bu ko defee nag doog dugg ci tomb bi nga xam ne moom lañ bindoon war koo waxtaane muy bind yiñ mën a jànge ci dunduk sëriñ bi radiyallahu taala anhu bu ko defee daldi di tëj ni ma ko waxe woon léegi ku ne xam na ne sëriñ bi dundam gépp kiimtaan la ndax boo demee ci ay mbindam dangay gis ne mi ngi wax ne xustu xayaatan la tura li gayri mujizatan baanat li mu ne làq naa dund goo xam ne keneen ku dul man làq ko maanaam li ma def ci sama dund ci lu baax keneen ku dul man defu ko kiimtaan la itam ci képp koo xam ne yàlla taw tawféexale na la ngay koo xam ne danga yor nopp yu mën a dégg lu baax kon ci biir loolu dañuy jox sëñ Mamor mu dugg ci biir waxtaan wi yàlla defal ñu yàlla defal ñu nopp yoo xamante ne bii dana dégg kiimtaani sëriñ boobu dana dégg itam bind yiñ mën a jànge ci ak dundam te ñu mën koo jariñoo kon sëriñ bi nañ la jox nga dugg ci biir waxtaan wi ngir xataayu waxtu wi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsani ila yawmi din asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi mustu ci seytaane di sant suñu borom di ko jéggalu di jullu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko safoo di ko ñaanal xéewal di sant sëriñ bi di ko ñaanal suñu borom nga li ko gërëm di nuyu kilifa yi fii teew ci jotaay bi yépp di ko tàmbalee ci ki nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma mu sëriñ Afee bu al imaam di suñu nijaay yi ñu koy siyaare di siyaare waa daayira bu baax a baax ak mbooleem rek ñi nga xam ne teew nañu fii ci jotaay bi di jottali ay ziyaara yoo xam ne day tàmbalee ci Mawlana Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fii te dolli ko wér dolli ko kattan di sant bu baax daayira bi ci jotaay yu am solo yi nga xam ne miin nañ ko weeru saa bu weeru koor ñëwee ñu di ko taxawee ak mbooleem rek jëf yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def ci barab bi di fi liggéeyal sëriñ bi féete fii féete taxawaay boo xam ne mutu yëpp la war ñoom ñu nekkal fi mbokk taalibe yëpp kon loolu ñëpp amel nañu leen ci ak cant di ñaan suñ borom barkeel ko te def ko muy liggéey bu bu bu ñu nangu ni ko sëriñ Assane waxee euh, tomb bi ñuy waxtaanee mooy ay ay bind ak ay jàngat yu ñu mën a def jëlee ko ci dunduk Cheikh Xadim radiyallahu anhu arda euh, muy waxtaan woo xam ne kon moom lañ wax ne moom lañu war a waxtaanee muy tomb boo xam ne tomb bu am solo la liñ ci waroon njëkkee sax muy lay taay gi Sëriñ Asan ni ko tàmbalee daanaka rek xawes naa mën a doyloo loolu muy kon euh, tomb bu am solo boo xam ne am na solo ndax ñi nga xam ne dañoo jiitu ñëw ba jàll moo xam ay yeneen si lañ moo xam ay nit ñu baax di jël ay bind ci seen dund loolu lislaam da koo fonk loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alxuraan doon na ko daan na ko nettali léeg-léeg mu nettali ko ay nit ñu baax ba yàgg mu ne ko ulaayika allazina hadallah fa bi hudaahum iqtadi ñooñu kat suñ borom ma leen gindi moo leen jubal nag mën ngaa roy ci ñoom kon ñu baax ñu yàlloon ñuy jàngat ci seen dund danañu dimbale suñu uh, ngir ñu mën a jubbanti suñu maanaam di jàngee ci suñu démb seen démb ñoom di jo mën a tabax suñu tey ngir joyante suñu ëllëg uh, loolu xam ngeen lislaam alxuraan soññu julli ñi ba tàyyi Euh, di leen wax ne leen nañu nañu jàng ci ñi nga xam ne jiitu nañ laqad kaana ko ñooñu kuy xalaat rek mën na cee jànge laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana ak yu dul yooyu di yuy saxal rek ne lislaam saxal na ne nit ñi nga xam ne dañoo jiitu nit ñu baax mën nañoo jàngee ci seenu dund ñi nga xam ne euh, seenu mbaax des na it mën nañoo jàngee ki seenu mujj kon lu am solo la tomb bi it am na solo ci waxtu yu ñu ko waxtaane muy jamono yoo xam ne àdduna sëpp rek dañoo nekk ci ay crise yu wute crise yooyu yi ci gën a fes rek mooy crise yoo xam ne crise delluwaay crise royukaay crise kenn ku nekk xam si fan ngay dellu ngir mën a ngir mën a euh, sàmm li nga xam ne mooy tax nga bokk fi nga bokk maanaam li ñuy wax sa identité ku ne li tax nga sàmm ko loolu euh, kuréel yu bari ci àdduna bi du Sénégal dong kuréel yu bari ci àdduna bi rek at yi yëpp dañoo ne ci jafe-jafe yooyu ñu waxtaanee ci loolu dina am solo ci jullit ñi am solo ci taalibe yi ndax ku ne rek lii tax mu mën a sàmm identité mooy mu xam mbir mi li mënta ñàkk ngir bokk ci loolu bu ko xamee ci la koy mën a téye ba ba tax du ci génn maanaam jullit bi lii tax ba li nga xam ne bu ko ñàkkee dootu nekk jullit loolu faw mu xam ko ngir doog a mën a sàmm identité murit bi it faw mu xam yi koy tee nekk jullit ak yi koy tee nekk murit su leen boolee yooyu lay mën a sàmm ngir ak muritam mu mën ko sàmm kon di waxtaanee dunduk sëriñ bi di jëlee ibi loolu am solo la ci jamono ju ne waaye rawatina ci jamono ji ñu ñu nekk nag tomb la boo xam ne nag ni ko si sëriñ Assane waxee dunduk sëriñ bi lépp ay bind la lépp ay ay ay jàngat la euh, moo tax waxtaanee ko yomb na jafe na yomb na ndax euh, tomb boo loo jël ci dundam rek mën nga cee génne ay bind kon loolu dana yomb ci tànn bi jafe-jafe bi fi muy nekkee rek mooy ban ngay jël ak ban nga dul baax ngay xam ndax bind yi day mujj bari ci sa kanam ba dootoo xam looy jël ak looy baax ni ko suñu asam waxee sëñ bi sëñ bi ci boppam waxal na boppam ne moom ak dundam dund dund la goo xam ne bu bu ko suñ borom xéewali xéewali bari la ba ne sax dund gi suñ borom da koo boole ci xar baax yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy xus xayaatan laa tura li xayri mu'jizatan baanat li usni xayri ak yu dul yooyu yi mu wax ci ci ci dundam gi ni ko suñu borom defee baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li rabbil alamina aaya ak bay bi suñu asan wax léegi ci ci jaawatu Euh, lastu asukku abadan fii kaw nii jaaral ba di ajaban lil kaw nii yooyu yëpp da ciy junj rek wane ne dundam gi moom suñu borom barkeelal na ko ko defal na ko ci xéewal yu bari yoo xam ne ku ne mën na ci jàngee ku ci jàngee di nga ci di nga ci gisee màgg suñu borom bi bu ko defee ni ko suñu asan waxee waxtaan wi ci ñaari tomb rek lañ koy def bu njëkk bi mooy ginnaaw ay bind la ñuy jël ci dunduk sëriñ bi dina baax ñu tënk tënk bu gàtt ci ci dundam boobu noonu bu ñu waxee dund gi li ñu ci jublu suñ jógee ci loolu rek li ci des moom mooy ay bind yu ñu mën a jëlee ci dund googu lu ci xaj ci waxtu rek ñu ñu def ko ci moom ni ngeen ko xamee Maolana Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu euh, di ku ñu miin koo xam ne mi ngi tudd Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu euh, des na ko woowee wala dina woowee boppam sax Abdullahi wa Xadimu Rasulihi muy garaat ci moom di aw tur ci moom di dàkkantal ci moom euh, bëri na ay tur yu ñu koy woowee ni ngeen ko xamee xaadimu rasul al abdul xadim cheikhul xadim sëñ Tuubaa eh, ak yu dut yooyu ci tur yoo xam ne danañ ko koy woowee suñ borom tànnal ko ay waajur yu baax yoo xam ne ci askan bu baax lañu bokk muy suñ Mamadou Anta Sali ak soxna Jaara Buso ñii ay nit ñu jub di ay borom xam-xam di ay nit ñoo xam ne lu jiitu démb ak bëkki démb askan yi ñu bokk ci jub ak jubal rek lañu leen xamoon kon ci askan wu tedd wu mel noonu la ko suñ borom tànnal mu feeñee si mu feeñ jamono ci dëkk bi ñuy wax Mbàkke Bawol soriwul fii xam ngeen maamam bi ñuy wax maam maaram di ñaareelu maamam moo ko sanc mu feeñ fa jamono ci euh, nisfu Sha'ban ci atum charaa 1270 du sori ay 1854 yooyu mu feeñ fa jamono moom sëriñ bi kon euh, ba ni mu génnee àdduna ci njaareem ci weeru muharram ci atum 1346 muy 1927 nga xam ne bu ñu ko nattee kon ci weeri ati wolof yi nga xam ne ci la daan nattal boppam man nañ dund na lu mat juróom juróom-ñaar fukki at ak juróom euh, dund gu barkeel bu fees dell ak njëriñ ak xéewal juróom yooyu nag fanweer ak ñett yu yëpp ci loxoy tubaab bi la ko nekk xam ngeen ci bu tayee ñu génne ko fii bu subaa ñu yóbbu ko fee di ko fon di ko fontoo ko foowee fanweer ak ñett yu mujj yëpp rek ci seen loxo la ko nekk yóbbu nañ ko Gabon mu def fa juróom-ñaari ñu indi ko yàggu fi ñu yóbbuwaat ko Mauritanie mu def fa ñeenti at ñu yóbbu ko Jolof mu def fa juróomi at ñu yóbbu ko Njaareem mu def fa fukki at ak juróom-benn ba ni mu wujjee boromam ñëw fii ci Touba kon ci dund gu metti googu la dund euh, gu xat googu nga xam ne bu ci bu réalisé woon bu réalisé wutoon dara sax des na ko mën a comprendre maanaam des na mën a des na ko mën a nangul ndax euh, wax xawtoo na mën a ne muy jëf loo xam ne lu ñuy waxtaanee ëllëg lay doon ci diggante boobu mu nekk ci ci ci loxoy tubaab yi waaye yàlla dimbale ko ba diggante boobu mu nekk seen loxo yëpp defu fi lenn loo xam ne lu lu diine bañ la wala loo xam ne euh, kersa wala mbañum rus dana ko dana ko ci jam suñ bi diggante boobu mu nekk ci loxoy tubaab yëpp suñu borom defal na ko sutura ba deful dara lu ko diine ji euh, bi mu tollee mu doonoon borom xam-xam bu mag boo xam ne xam-xamam da ko da jaar si ko ñëpp di jaar bi mu tollee ci jàng bu ñu delloo ci li suñ mbàkk bu sa wax euh, ni yaayam sëriñ bi bu soobee moo ko dalal moo ko dalal ginnaaw mu jox ko taf seen mbàkke numbe koo xam ne maam la si moom moo ko soxna Asuwaala mu jàng ci moom alxuraan bay bëgg a génn àdduna mu dem ci mu dellu kër waajuram bu góor suñu maam Mor Anta Sali fa laa galee njàngum alxuraanam bi njàng mi àggee mu daal di tàmbali njàngum eh, xam-xam yi diine yi lislaam yi fiq ak yu aju ci yooyu ba xaw caa sori jàng na ci ñu bëree bëri ginnaaw bi ñu jox ko tafsir Mbàkke Ndumbe ñu jox ko eh, suñ Sàmba Tukulóor Ka koo xam ne moo waajuram bu góor ay doomi ndey lañ mu wéyal di jàng ci moom nee na sax suñu maam Sali bàyyi na ko Saalum ñëw Kajoor lu mat at moom mu des ci suñ Sàmba Tukulóor Ka di fa jàng nañ ay risaala ak yooyu la ko jàngee ba ni mu ñëwaatee Kajoor fekk si waajuram di wéy di jàng si moom jàng na si ñeneen ñu bari ci digg-diggal boobu it euh, ku mel ne Cheikh Mamadou Fadil Ad-Daymaani mi nga xam ne am ci waa Mauritanie la bokkoon daan ñëw ci gox boobu wax nañu ne suñu jàng la ci moom rawatina lu jëm ci ay mantiq ak ay balaaxa yu demee ci noonu ku mel ne Xaadima Jaxate Kala sëñ bi jariñu tam jariñu si moom ci wàll xam-xam waaye nag ne na moom jàngalu ko ab téere nee na nee na xaadi yóbbu mu ab téere mu dama ko jàngal waaye dama daan bind ay bayit di ko ko jox mu dama ko toppaatal su toppee jubbante jubbante jox ma ba ni mujjee ne ma nag léegi say bayit ma cee gis ay njuumte léegi daal li li ñu seq mooy ngay bind di ma jox may mokkal rek loolu la ñu seq kon foofu la jaar ci xam-xam ba ñi amoon xam-xam te jamono teg moom ñëpp seere ne suñ Tuubaa borom xam-xam bu mag la te bu ko kenn seere wutoo nit mbindam mi mu fi baax ku ko yër xam ne kii moom ki bind lii moom borom xam-xam la bu gëstu la bu xóotal gëstu la borom xam-xam bu ràññee tamit loolu moom suñu borom nag ko mu doonoon nit koo xam ne it ngi feeñ jamono ci askan woo xam ne askanu tasawuf lañ ci tarixa xaadiriyya la ñu bokk mu nekk ci seen biir bi mu demee ba toll ci jël wérdu mu jël al wérdul xaadiriyya jële ko ci waajuram yeesataan na ko ci ñeneen nit dox ci doxin woo xam ne sax askan wi mu bokk mën nañ ne moom rek lañ gis mu mu jox ko yitte jooju dem fu ne di ko fa yeesal fu mu dégg ñu ne am nañ ko fa mu dem yeesu fa wirdu bi dem ba gànnaar yeesal ko fa waaye silsila xaadiriyya bi mooy moom fi mu jëlee wirdu yi fi mu jaar fi ba àgg Cheikh Abdul Xaadir Jilaani loolu lépp di wane solo ak ak yitte ji nga xam ne joxoon na ko joxoon na ko euh, dox ci yoonu yàlla muy wéy ci noonu ba wax nañu sax yenn jamono yoroon na wirdu xaadir yi ak tijaan yi ak wirdu chaadil yi loolu lépp di yitte joo xam ne joxoon na ko joxoon na ko loolu doonoon nit ku maandu ku bëri yërmande ku ku woyof koo xam ne ku dëdd àdduna xam ngeen jamono ji mu nekk njaareem daanaka Sénégal mën nañu ne Sëñ Tuubaa mooy ki ëppoon doole boobu ndax ñi ëpp doole ci réew mi ñëpp moo leen yilif ku yilif maam Cheikh Anta yilif maam Thierno yilif sëñ Mandoumbe Cheikh Ibra Fall sëñ Issa Diène ak ñi ma tuddut ñooñu ñëpp ku leen boole yilif réew mi nga nekk yaa fa ëpp doole te li muy yilif yilif ñooñu it teewut ci ay néegi ñax la dëkk di dund dund dund gam amoon démb ak bërki démb rek euh, ngir dëddu àdduna boo xam dëdd na ko bu ngeen xoolee yére mbubbam yi muy sol rek ñi ci mas a gis mbubbam wala ñu gis ci photo bi da ngeen di gis ne yére yi sëñ Tuubaa yooyu yére yii la rek ay malikaan ay perkaal ak yii rek yii dong la ku ko mës a gis sax yi ci ëpp loxo lañ ko ñëwee wëñ la nga xam ne mbubb la daal day fexe ba sol mbubb noonu rek mbubbum sëñ Tuubaa kon fekkoon fii ci ñun buñ la ko joxee te waxuñ na la mbubb doo ko jël boo boo xamee ne moom da ko jël muy sa taxe àdduna ak waaye boo ko xamul doo ko jël ndax doo ko soxla foofu la àggoon ci toroxlu foofu la àggoon ci dëddu àdduna yore lépp te nanguutu tee dara yilif lépp te dara ñoru ko ci euh, kon euh, nit ku maandu la woon nit ku dëddu àdduna koo xam ne ku daa jëmmal dëggi dëggi lislaam la woon Euh, noonu la wéyee ci ci yoon wi ba ni ko suñu borom baaxee nag mu am tariixa boppam euh, di di loo xam ne lu mag a mag lu rëy rëy loo xam ne euh, mën nga ne mbooleem lu mu doon sàkk rek ci la ko amee di loo xam ne ci moom lañ ko njëkk a ci gox bi yëpp nit ku ku ku ku jëlee ci am wirdu boppam am tariixa boppam loolu moom fii fépp suñu wàll lañ ko njëkk a ko mujjee déggee yi tamit nag loolu kon di lu rëy loo xam ne suñ borom baaxee na ko ko Euh, booloo taxoon ba Cheikh Cheikh Sidiya sax bi mu koy woyee rek ne Cheikhu Ahmadu ni'matun awlaha hasil xalaa'iqa kullaha mawlaha ne suñ Tuubaa mii daal euh, xéewal la rek loo xam ne suñ borom moo ko baaxee mbindeef yëpp moom noonu la meloon ci ci nit ñi bi mu fi ñëwee ba li mu fi jógee lu jëriñ nit ñi rek ci la nekkoon euh, daal leen xettali loolu nag daa ko bind daa ko wax daa ko daa ko jëfe kon foofu la jaar ci ci dund gu barkeel boobu dund googu nag ci lañ bëgg a jël ay ay bind ngir ma njëkkanteeg waxtu wi rek su ko defee ni ma ko waxee woon bu ñu duggee nag ci tomb bi nga xam ne mooy dëgg-dëgg waxtaan bi mooy ay bind yu ñu mën a jëlee ci ci dunduk sëriñ bi ay bind yu ñu mën a jëlee ci dunduk sëriñ mën nañ koo xaaj ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi ay bind yoo xam ne dañ koy jëlee ci ni ni suñ borom doxeek moom suñ borom ni mu jëflante euh, Cheikh Khadim loolu ay bind la ay bind gi ci yoo xam ne jullit ñi mën nañ see jëriñ beneen xaaj bi nag di ay mbind yoo xam ne moom ci aw melokaanam ak doxinam moom sëriñ bi ci lañ koy jëlee bu dee bu njëkk bi muy bind yu ñu mën a jëlee ci ni suñ borom jëflante ak moom bi ci jiitu mooy aaya bi suñ borom di ne inna allaha ala kulli shay'in qadir ak faalun li ma yurid ne suñ borom dara tëwu ko te it du ko neex def loolu ku jàngat dund Cheikh Xadim radiyallahu anhu ñaari mbir yooyu day fës lool ci fi ko suñ borom jaarale ba fi mu ko mujjal ndax ku xool fi mu ko jaarale ñu ngi ko boloon ci ay noon ni ñu amee woon kattan te lépp luñ xam ci lu ko mën a faat wala lu ko mën a lor ñu di ko def subaa ngoon guddeeg bëccëg te suñ borom aar ko sàmm ko ba mbiram mujj fi mujj da ngay xam ne li suñ borom waxoon ne inna allah ala kulli shay'in qadir ak wax ne fa'aalu lima yurid loolu mooy li dëggu ci ni suñ tubaab ni mu jëflante ak moom mooy noonu yëpp ànd nañ bëgg koo lor waaye suñ borom ci kattanam ci cof ci coobaale bi nga xam ne lu ko neex mu def ko ci ci la ko sàmmee ba mu mu mu mujj fii nga xam ne euh, day day wax sax moom ne yoonu géej gi yépp li ko walal mooy suñ borom daa am ñett yu mu ko bëggaloon rek bëggoon na koo jox daraja ju màgg ci moom bëggoon na koo def muy liggéeykat yoonu chancelam bëggoon na koo def mu doon kii xecc li ñu ñam ñett yooyu la ko bëggaloon te su demutoon du ko mën a am moo tax mu dem muy mu nekk abdullahi xadimu rasulihi nekk xaw xawmihi muy sababu xaybati anna allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian il xawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi kon foofu bind a ngi fi ci bépp jullit mu xam ne suñ borom li mu waxoon ne inna allaha ala seen shay'in ba léegi jugu ci mooy suñ borom lu ko neex mu def ko te tëlewu dara loolu bind la ñaareel bi ci ni suñ borom jëflante moom it des na ci jàngee ne li ñuy li alxuraan di wax ne wala aqibatu lil muttaqin mooy dëgg rek mooy mujj dëgg rek mooy mujj ndax sëñ Touba jëflanteem ak tubaab yi gi woon na kenn ku tudd Cheikh Ahmadou Bamba rek tubaab yi di ko génne dimension bi weesu woon na lool day mel ne diggante xëccoo la woon diggante dëgg maam ak neen tooñ ak maandu lëndëm ak leer diggante yooyu ñoo doon ñoo doon xëccoo ngëm ak kéefar ngëm ak wetti nga xam ne mu mujjoon na jéggi jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ci waaye fi ñu ko jaarale fépp mujj nañ mboolem li ñu ko doon bañal tey jii la gën a yaatu tey la gën a yëkkatiku lislaam tey dafa gën a sampe yoonu murid gi mu doon woote ñu doon ko ko tere tey la gën a yaatu ba bokk ci yoon yi gën a rëy ci réew mi ak ci Afrique gépp mbirum suñ bi tey la gën a yëkkatiku tey lañ ko gën a fonk tey lañ ko gën a bëgg te loolu lañ ko doon bañal xam ne kon loolu day wane rek ne dëgg lu mu yàgg-yàgg rek mooy mujj wala aqibatu lil muttaqin li suñ borom wax ne wa inna jundana lahumul ghalibun lu mu yàgg-yàgg rek euh, ñi ne ci dëgg ñooy mujjee ñooy mujjee ndam la moo tax biñ koy indi moom sëñ bi jaareem sax mu mu muy wax ñaari bayt yooyu ne kat ñu ngi may indi fii yaakaar ne dañ may yàqal fekk xamuñ ne suñ borom daf ma ci defara ne ñëw gi ñu may indi jaareem nag suñ xamoon li ma ci jëlee danañ ma ko soxale ba duñ ma fi indi daan ne ndax ñoom ñaar yi lañ ciy jëlee buñ fi ñëwee seen biir da ciy jeexe dañ ciy loro man nag ñaari yi ci jëlee moom mooy sama mbir da sax ba faw te suñ borom daf ma ciy terale muy raamu masiri ilaa jubal la daal law aayanu sirra ma fi sayri maaraamu fa sayru mawtun liman xat naazan wa azan wa innahu liya ibxaaun wa ikraamu ne moom ibxaa ikraam la ci jële suñ borom da ciy saxal mbiram muy wéy ba faaw da ko ciy teralit te loolu bi mu ñëwee njaareem ni mbiram yëkkatikuwaatee loolu ñëpp ñëpp teg nañ ci seen bët loolu di wane ne kon li suñ borom waxoon ne wala aqibatu lil muttaqin loolu it lu fës ci dunduk sëriñ bi la mooy lu mu yàgg-yàgg rek dëgg mooy mujj euh, des na ci jàngee li suñ borom wax ni inna allaha laa yudii'u ajral muhsinin mooy ku jëf yàlla fay la ku jëf rek suñ borom dina la fay ndax sëñ bi lim daj lépp ci ay coono muñ ko yamut ci muñ ko waaye sant ci suñu borom gërëm ko ci ci lim ko teg xam ne moo ko teg te xam ne daa am lu mu ko namal moo tax mu jox ko ko loolu euh, moo tax mu mujj mu sax rek ci boromam ba suñu borom mi ñëwee indi fay gi mu ko fay mooy li ñuy wax ne man kaana lillaahi kaana laahu lahu maanaam képp ku nekkal yàlla rek faw yàlla nekkal la wax nañ ne sax Cheikh daan na ko daan na ko firi ne ne man kaana li kumu rek kaana kooka lëfoo waaw ku ko nekkal rek kooku dana la nekkal daan ne kon rawatina bu yàlla suñu borom mi nga xam ne nag moom moo gën a moo gën a baax moo a maandu loolu it fes na loolu ci ni suñu borom jëflantee ak moom euh, noonam yii nga xam ne ñoom la dajaloon it ñu doon ko moo xam ay sénégalais lañ moo xam ay africain moo xam ay tubaab wala naar ñi ku ci doon dëngee fiñ mujj seeni mujj feeñee na ci li suñu borom di wax ne fanzur kayfa kaana aqibatu zalimin mooy kuy tooñ faw dinaa am bés kuy tooñ du mucc te kuy tooñ faw dina am te sëñ bi bu ñu toppee mbooleem ñim jëflanteeloon donte genn bëccëg lañ ko mas a tooñ génn ñu kaw suuf jógewuñ ci kaw suuf loolu na suñu borom toroxal ne fii ci kaw suuf laata ñu fi doog a jóge ñëpp ñëpp ñëpp suñ bay géey si li dajale na ci ab téere boo xam ne ci tubaab la ko bind am na yeneen bokk ci dajale leneen tuddee ko fanzu kayfa kaana aqibatu zalimin xëy na balaa yàgg dana génn loolu lépp di wane ne Sëriñ Tuubaa mboolem ku ku ko mas a dënge suñu borom wan na la ko fii ci kaw suuf laata nga fi jóg loolu nag am na ay bind yu ñu ci man a jàngee ñun mën nañ cee jàngee ne kat ndax boo xoolee sénégalais yi nga xam ne ñu doon jaxase sëñ bi ak tubaab bi ñi ci ëpp ci ñoom mbir mi mu ngi déparé woon ci fiiraange rek ak coxor ak ñaan teewuñu seen xol jéemu ñoom moom seen bopp ba mu yóbbee leen ñu jóg def ay acte jóg dem ci tubaab bi jaxase leen ak sëriñ bi Euh, loolu xam nañ ci ay nit yu bari yoo xam ne dañoo tudd ay tur famille dëkk ñëpp ñoo xam ne mbir mi bi ñuy départ gisoon nañ suñ benn mbooloo li ñu xaw koo fiire rek dem nañ mujj nag ba mënatuñoo tee seen bopp ñuy ruuxale diggante ak tubaab bi kon euh, loolu it na gis ci ne ak jullit war naa wattandiku képp kàttanam lépp lu jëm ci coxor wala kiñaan wala fiiraange ndax da koy yóbbee ay musiba bu ko moy tuut wala ayaasu billah tubaab yi it bi jaxase ko di ñëwee wax leen loolu buñ teeyoo duñ dal ci ko sëñ bi ndax kon danañ xam ne mboolem liñ leen doon wax dana jaxase moom du dëgg waaye ñàkk a teey gi it moo leen yóbbee ñoom it ñu ñu daal di doxee niñ doxee kon loolu bind gi ci ne li alxuraan waxoon ne yaa ayyuhal lazina aamanu in jaakum faasiqun bi nabain fatabayyanu su a def benn acte bala ngeen a wax jël benn position na ngeen na ngeen gëstu ba xam ne lii kat dëgg la te nii la demee te dinañ faral di am nag bëri na ay girawaale yu am yu léegi ci àdduna si yëpp réew moo mën a dem yoo xam ne ci ay demale ak ay fekkale rek ci lay ci lay ci lay jóge buñ ko toppee ba ci biir ay rumeur rek lay doon comme ni ñu koy waxee noonu war nañ cee jàngate ci xam ne kuy tooñ moom faaw dina am bés may mujjee ci ni sëñ bi jëflanteeg ni suñ borom jëflanteeg moom rek mooy li suñ borom di wax ne say jaxal laa bada seen mooy daal euh, képp ku bëgg teraanga faaw di nga nangoo sonn suñ borom noonu moom mooy ni muy jëflante ak jaamam ñëpp ngay jullit ngay leneen ku sonn gis résultat bi fii ci àdduna la moom boo doon jullit boo jaabu moom boo àggee fekk ko fa mooy li suñ bi di wax rek ne wax la bi anna al majda laa yunaalu illaa bi xadril kat bi fii maa xaalu doo ci am lu dul lu toll ne la nga ci daj ci ak coono rek lu toll noonu da nga ci am euh, moo tax sax moom mi junj loolu ci mbiram wane ne kat nabbaxtukum maana ala kaddin bada lii xabla an ara lii xabla an ara ridan mu abada maa ngi leen di xamal ne daj naa coono yu méttee métti laata muy am ngërëm sax li nga xam ne am naa ko waxaan na feneen sax ne na baxtukum maan ala kaddin bada li xabla an akuna baxran musbida maa ngi leen di xamal ne kat euh, daj naa coono yu méttee métti te tamit laata may mujj mel ni ma mel doon géej gu duusu rek ci ay xéwal loolu lépp di wane ne jullit bi dafa da ko war a jaral maanaam dafa war a xam ne teraangay àdduna ak teraangay alaxira teraangay àdduna liggéey koy maye teraangay alaxira jaamu yàlla ma koy maye maanaam ku ku ku ku bëgg faaw nga nangoo sonn kon loolu ay bind la yoo xam ne mën nañ koo jëlee mu juróom yoo xam ne mën nañ koo jëlee ci ni nga xam ne suñ borom jëflante na ko ak Cheikh Khalil radiyallahu anhu beneen ñaareelu xaaj bi ay bind la yoo xam ne nag moom day jógee rek ci doxin mi nga xam ne moom sëriñ bi moom la dox ni ni mu doxe muy ay jikkoom muy ay meloom muy ni mu doon doxe yooyu moom yii may bëgg a wax moom yuñ mën a roy la du ay xarbaax du ay kéemtaan waaye yu yu yuñ mën a roy la moom yuñ mën a roy la bokkut ak jël jëlub der julli ci géej géej yooyu bokkut ak yooyu yii moom yuñ mën a roy la ci képp ku ko bëgg bu ko defee man nañ cee am ñeent yu bokkut yu jëm ci wàllu diine xam jëm ci wàllu jikko yu jëm ci wàllu kilifteef ak ñi ñilif ak nag yu jëm ci wàllu rek euh, suñu biir jëflante bi bu dee xaaj bu njëkk bi muy lu jëm ci wàllu diine ak xam-xam bind bu jiitu buñ ci mën a jàngate mooy euh, Seexul Xadiim ku xool dundam gépp gis ni kii ak jullit la bu fonk jaamu yàlla fonk jaamu yàlla mooy bind bu njëkk bu ñu war a jël ci ak dundam fonk jaamu yàlla jël boo ne jaamu yàlla jëlal naa farata yi waaye sunna yeeg yee ca aju fonk koor yi fonk koor yi naa fonk naafile yi gis ngeen sëñ Basiru sax wax na ci meneen baaxi Xadiim ne sëñ bi daan na julli ñaar juróom-benn rakka wala ñaari rakka ginnaaw timis yoo xam ne baqara ak Aali Imraan la ci tari bis set amul jëlal ci loolu bokkut ak yeneen nawaafil yi rek tahajjud yi mi def ak yooyu di wane ne kon jullit bi war naa xam li ko fi indi taba ko fi te mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kër kër gi lu mu bari bari yëngu li lu mu bari bari yitte ji ñu fi indi woon te baju fi mooy sàkk ngërëmul yàlla te mënee su koo sàkkoo ci lu dul jaamu yàlla ñaareel bi mooy ab bind bu ñu mën a jël ci loolu ñuy sàkk xam-xam lay gën a yitteel mooy nangoo euh, tegoo ay coono ngir ngir sàkk xam-xam maanaam sëñ Tuubaa bi muy sàkk xam-xam da cee sonn ay coono yu méttee métti am na ñaari xista yu yu yéeme yu ci nekk li ne ñaari téere yi jëndal boppam nga xam ne moo ko jënd moomal ko boppam ci xaalisam nee na téere bi mu njëkk a jënd moom moom mooy téere imam Ghazali bi ñuy wax bidaayatul hidaaya nee na téere bi boobu ma nga ci Saalum toll ci njàng am njàngam sore soreegul yenn sori yi benn naaru gànnaar di ko jaay ne ko benn dërëm la ko jaay nee na waaye yoruma njëg gi nag amoo amoo yoruma njëg man na ko yoruma ko de waaye jàllal na ma ko léegi da ngay ñëw ñu ànd fu mu lijjanti ko rek ma jox la dërëm tëjal téere bi nee na mu ne ma waaw nañ dem sëñ bi nee nag man sama aada da cee bokkoon du ma laaj kenn xaalis bu ma ñëwee fenn daal dinaa ñëw rek bu dem jotee ma dem buñ ma joxee baax na suñ ma joxu tam du ma du ma laaj kenn ndax xam ngeen laaj rek dafa baaxut laaj moom yàlla rek moo moo ci mata laaj pour yàlla boo ko dee laaj loolu mu sopp yàlla bu mu sant yu gàtt loolu sëñ bi nee na bi ñu ñëwee ñu dem ci euh, kenn koo xam ne ak taalibe la woon ci si moram sëriñ ku yor bitig di jaay maanaam taalibe doon na jàngee ci moom daal nee na bi ñu ñëwee maanaam naar bi ñu nuyu ko nee na waa bi ma nuyoo rek dafa tàggoog sa gox mer daal di may xëcc yóbbu ma ci ginnaaw ne ma lii nga sol nee na yére yi ma sol xaw naa màgg daal mun ma yow doomi kilifa sa bàyyi sa waajur ni mu fi mel ni mu toll nangam na ngay sol li waroo sol li nee na daal di génn mbubb yóbbu ma ci ginnaaw ne ma sol ko fi summi mi nga sol sëñ bi nee ma jël rek daal di sol summi mi ma soloon moom lem ko teg ko ci yoonam fa daal demaat ñu toog ba ñibbi jot mag naar bi ñu dem bi ñu demee ba ci yoonam mu jëlaat mbubb moom amoon mbubb mu xottit moom solon daane naar ndax bëgg nga mbubb mu bees jël téere bi naar bi ne ko bu ma ci jotee nga jox ko sol mbubb mu xottit moom solon téere boobu nee na mooy bi mu njëkk a jënd ci kaw suuf nga xam ne ci mbubb la ko jëndee mbubb muy bidaayatul bidaaya téere boobu nee na bi mu demee ba ci kanam ba am njàngam sori moom la mujj taalif tuddee ko tuddee ko mu la yéen suluuf mu lay yëngu suluk téere boobu noonu ba mu njëkkoon a jënd xam ngeen mu lay yëngu suluk moom la yeesalaa tuddee ko mu lay yëngu suluk bi ñaareelu téere bi moom it mooy téere fatal aqfal bu saafu laamit afaan nee na loolu kajoor lay doon xam naa nee na boobu benn naar ko dinañ ko jaay ci ñetti dërëm mu wax la ma waxoon ko njëkk rek ne ko nañ dem ma lijjanti ko nee na ñu ngi ànd moom ak maam Thierno ak sëñ Masamba Diop Samb nee na ñu wër bi dëkk. gox yi leen wër yëpp wax dëgg amuñu ñetti dërëm yi ñu ñibbisiwaat ak loxoy neen par naa bi xaw na koo tooñ sax nag waaye bi ñibbisee far suñ borom yombal mbir moom jot ci téere bi nga xam ne ñetti dërëm yooyu rek laata ma ko jox nee na wër na nangami dëkk amu ci sëñ mot jom Masamba nettali na ko ne sëñ bi fekk na leen jaareen bis ñu toog ci benn jotaay moom sëñ mot jom Masamba ak sëñ Modou Awa Balla ak sëñ Modou Moustapha nee na sëñ bi tegal leen ndab toog na ci seen wet ba yàgg mu mel ne ku xaw ak kii ak ñoom ne leen di am na bis bàyyi kii joxoñ sëñ Modou Moustapha nee leen ànd naag bàyyi kii joxoñ sëñ Modou Awa Balla ak bàyyi kee muy sëñ Modou Masamba nee na ñoom ñett ñu àndi wër bëgg ñetti dërëm ñu wër nangami dëkk te ñu ko am ne leen loola nu mu demee tey jii nii te sëñ Modou Diop nee na jamono bi mu koy wax ñu dañoo seex ba soxlawuñu sax suñu waajur li ñu yor ñoom seex nañ ci kanamu sëñ bi nee na mun leen gis ngeen ni mbirum suñu borom ni mel nee na ñu seen ñetti bàyyi àndoon nañ bis bëgg ñett dërëm mu tëleen ci nga xam ne kon coono yooyu yëpp da ko toggoo ngir ngir ngir xam kon loolu it na ngi ci ci ñu toll ci sàkk xam-xam ci ñu xam ne dañoo war a nangoo sonn ngir xam-xam mooy la moo xam maam Cerno ca kun kaati man rek ba mu jeex euh, kon kuy toll ci sàkk xam-xam rawatina jamono ji nga xam ne luxe bi dafa bari euh, téléphone yu cher yi yére yu cher yi yooyu yëpp luy luy fëkk luy fëkk jàngkat bi la jàngkat bi moom dafa war a xam ne rek daa am lu ko tax a jóg mooy sàkk xam-xam bu dee wërsëgam mu bàyyi ko ci loxol suñu borom euh, is rabbuna mutakafil risqa la si yataallam loolu lu lu lu wér la bi ci toppit mooy bind buñ mën a jëlee ci ñi nga xam ne ñoom jàng nañ ba noppi wala boog jàng nañ ba sori mooy nag ñuy dundal xam sëñ bi bi mu ba ba noppi yemut ci am xam-xam bi yàgg waaye dafa dundal xam-xam ni mu ko dundalee mooy dafa taalif waaw nit bu sàkkoo xam-xam ba noppi bokk na ci yi ko aw yi ko aw askanam di gën a xaar mooy mu dundal xam-xam fi mu ne mu ubbi ay daara di jàngale waaye mu taalif te taalifam yu bari yi ngeen xam ne diwaan wax la mu diine rek dajale nañ ci lu mat ñaar fukki ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay mbir ci ay téere xam-xam bokkut ak min wasaaya bi nga xam ne raw raxin génne woon nañ ko bokkut ak min xekam bi raw raxin génne woon bokkut ak min fatawa bi nga xam ne Sëriñ Abdou Khadre Bousso bi moo ko génne yooyu yëpp ay bind xam-xam la yoo xam ne Sëriñ Tuubaa loolu moom mm, bind ci ci ne sàkk xam-xam it buñ sàkkoo xam-xam ba sori war nañoo góorgóorlu ci ci dundal xam-xam mën nañoo jëlee bind it ci dunduk sëriñ bi ci ak ubbiku goo xam ne day ànd ak yeewu ubbiku ci ñëpp waaye boo xam ne nag yeewu da ciy ànd yeewu mooy mën ngaa jël ci ñëpp waaye da ngay seet bu ñëwee nag euh, ku xool ci misaal lu mel ne Masaalikul Jinaan xam ngeen sëñ bi mu koy taalif dellu na ci borom xam-xam yu bëri imam Ghazali sëñ bi da ko fonk di dellu ci moom bu bëri ba ne sax borom xam-xam bu ne su ma jëlee ci moom dinaa ne xaala diw su ma nee xaala dana wax turam daal ba mu des imam Ghazali su ma nee xaala rek moom laa bëgg a wax ndax li may jël ci li mu moom dana bëri waaye teewut li mu koy fonk fonk di jël dafa am rek wet gum ko soxla mooy li li li ñoom soxla loolu rek la jël ci imam Ghazali maanaam imam Ghazali li xam-xam bi bari bari li bind ci falsafa maqasidul falasifa taxafatul falasifa ak beneen téere bu ndaw bi almunqidh min ad-dalal yooyu yëpp da ko faa bax dem jël lim soxla ci ihya ulumuddin indi ko xëy na léeg-léeg mu laaj ci xut ya indi ko dugal ko ci masaalikul jinaan ndax ñi muy taalifal ñoom lii lañ soxla lu jëm ca falsafa xam-xam fu muy jóge ci xel yi lay jóge wala ci cër yi wala ci fan la nekk yooyu yitteelu ko moo tax da ko faa baax doonul ne dafa baaxoon waaye ñii muy wutal soxla wuñ ko moo tax loolu yit jàngkat yi baax na ci lool ñuy bàyyi xel seenu askan mooy lu ñuy jëggaani di ko indi na doon lu dëppoog li ñu fi soxla fii ci barab ndax loolu lool rek ay mbëkkante lay indi ndax ku jëggaani ay ay xel rek da indaale ay jikko yu bees ay jikko yu bokkut ak yi ñu fi loolu it bind la bu ñu mën a jëlee ci ci ci dunduk sëriñ bi bañ a sànq sa dund bañ a sa dund fonk sa waxtu dund gépp nga fexe ba lépp nga feesal ko dell ci njariñ xam ngeen ne sëñ bi bi mu feeñee ba ni génnee àdduna dund gi lépp lu barkeel la amul wenn waxtu ci ak dundam moo xam dafa neen du suba du ngoon du bëccëg du guddi waxtu yëpp da koo dundal ba mu fees dell ak ay njëriñ nga xam ne loolu sëñ Basiir di wax naan fa layluhu nahaar wa nahaaruhu nuur maa lil axyaar fi zamanihi nasiib innamaa huwa li rabbihi tabaraka wa taala ne sëñ bi guddeem yëpp ay bëccëg la bëccëgam yëpp leer la ay caaxaan amul amul place ci dundug Seexul Xadiim radiyallaahu anhu lépp lépp suñ borom la ko jàllee loolu moo ko may jëf yu mag yi mu jëf ak ni mu ko teelee def xam nga ne sëñ bi tàmbali naa taalif te amul ñaar fukki xam nañ ay bind sëñ Tuubaa yoo xam ne bi mu koy bind amagul ñaar fukki loolu yitte la ju kawe yoonu murid bii li muy rëy rëy ñu koy wane ci fanweeri at fanweeri at ci la toll fanweeri at mooy ñi feeñoon jamono 93 li muy woote yoonu muy foofu la toll Masaalikul Jinaan li muy rëy rëy ci fanweeri at ñaar la ko bind Daaru Salaam ci ay fanweeri at ñeent la ko taalif Tubaa gi fanweeri at juróom-benn ci la ko taalif bi ñu koy jëlee fii di ko yóbbu ci géej gi ci ñeent fukki at ak ñett ci la topp ci la toll doonul góor gu màggat lañ jëloon noonu déedéet te boobu fekkoon na yii ñu ko toppee moom mu def gi fekk na ay dëkk seexal ay ay nit samp xett la ay ñu dul jeex samp ay daara yooyu defoon na ko doo ko dem ci géej gi nga xam ne loolu lépp ci ci ñeent fukki at yooyu la ko def te fi mu ne nii jamono ji ñu loolu ku am ñeent fukki at sax daanaka def dara wala koo laaj lu def maanaam ki gën a jàmbaar da lay wax tabax naa kër wala am naa oto loolu du loolu dara de ndax ku faatu tey bu suwaa ñu miraas ko loolu bokk ak réalisation kenn ku nekk ci ñun rek bu ko neexee mu laaj boppam moom bi mu juddoo léegi lan la jëfal lislaam kenn ku nekk ci ñun fii ñëpp mën naa xalaat bi mu feeñee jamono ak tey lan la fi jëfal lislaam ku sa xel demut ci dara lu leer rek xamal ne jëfe ko dara moom ndax kër moom taxul ñuy wax oto taxul ñuy wax yooyu moom wërsëg la ñëpp ci bokk yam ndax ñu di julli sax am nañ suñ Tuubaa bi bi bi fi suñu maanaam sel xëyee jóge moom bu génnoon na ci ngoon googu maanaam bu woote wutoon yoonu murit tam moom liggéeyal na lislaam moom sëñ Tuubaa moom liggéeyal na lislaam laata muy woote yoonu murit mooy ak dundam dara neenu ci kon loolu bind a ngi ci ci nit ki war naa fexe ba bañ a ak dundam bañ a ak dundam te fonk waxtoom bu baax a baax ñaareel bi ay bind yoo xam ne mën nañ koo jëlee ci ci wàllu jikko ci wàllu jikko ak melokaan bu njëkk bi mooy njariñul njariñul gëm yàlla ak doyloo ko gëm yàlla ak doyloo ko njariñ li mu am ci ab jullit ndax sëñ bi dundam gi yépp day wane jaam bu wakkeelu ci boromam ngëm yàlla gu mat sëkk moom la jóge woon ngànnaayoo wakkeelu ci suñ borom doyloo ko xoolul benn mbindeef du jàmbat kenn rafet njort ci boromam sàmmoonte teg gi ñuy war diggante ma borom te lépp lu mu dogal mu neex ko bi mu demee ba am loolu ci la am pas-pas am yëg-yëg fas ci xolam gëm ci lu wér ci ne njariñ ak lool ci suñ borom dong lay jóge jógewul ci ñu weex ni jugewul ci ñu ñuul ñi jugewul ci ñu baax ñi jugewul ci ñu baaxut jugewul ci soppe yi jugewul ci ñi nga xam ne ay noonu lañ moo tax mu doon wax man zanna gayra llaahi yugni aw yadur fa zaaka fi daarayni zu kaddin wa képp ku jaa ku yaakaar ne am na kenn ku mën a jëriñ wala mu mën a lor ku dul yàlla suñu borom subhaanahu wa taala kooku àdduna ak àlaaxira ci coono lay dëkk moo tax bi mu amee pas-pas boobu nag moom ci borom digganteem ak borom doyloo ko ci lu moo tax mu mujj amul mel mindeef moo xam ne mu ne amul mel ni mbindeef muy ragal bastu axaafu durra xalqin baadama fawwadtu amriya ila rabbi sama amul mel ni moo xam ne daal maa ngi ragal ci moom lor ndax jël naa sama lépp te ko ci suñu borom bu ngeen xoolee bëgg na loolu ay jëf yu mu jëf yuy wane wakkilu gum wakkilu ci borom wax na ne keroog bi mu nekkee ndar ñu koy bëgg yóbbu ci géej bi te demagut fanweeri fan ak nangam yooyu mu fi def nee na toll na ay jamono magi njàmbur yi kilifa yi am ñu fa ñëw ci moom ne ko kat dañoo bëggoon nga may ñu ñu wax ak tubaab yi tinu la ci ñoom ñaan leen daal nag wax dëgg ñun xam nañ la xam nañ li nga mel ñaan leen ngir ñu balax bañ laa bañ laa génn dëkk bi wax a wax seen wax yu rafet ba pare nee ma sant leen ne leen nag xallu bayni wa bayna rabbi wa huwa adfa'u bi minkum wa a'lamu bi ma huwa aslahu li nee na ma ne leen sant naa leen gërëm naa leen waaye nag bàyyi leen maag suñ boroom rek suñ borom moo ma gën a yërëm ci yéen te moo gën a xam li gën ci man kon génn leen ci roy ko Seydina Ibrahim te la ko malaayka yi waxoon mu ne leen suñ borom xam gi xam ne maa ngi fi rek doy na ma sëkk boobu siñ bi lu bu ne woon waaw rek lu génn ndax ñun dañu ko lijjanti mu ne leen génn leen ci rek lu waay wax suñu borom loolu gu mat gu mat sëkk gu am diggante ma boromam rek moo ko dañu ci loolu gis ngeen ba keroog bi muy génn daaru mën naan te kenn ci seex si xaar ci kanamam ne ko may ñu rek jox ñu ndigal dimbali ñu tubaab yi moom bala defee dafee génne ñii lay jël si dañ leen faat ñun ñëpp wala ñun ñu faat ñu bañ jeex ñun waaye yow booy génn dooñu fi ba nee na sëñ bi ne leen sëñ Basiru nee na sëñ bi ne leen inni lam arju xan wala ma axaf aduwan wa zimaami bi yadillah ne leen lii ma ne soxlawuma ci ab xarit ragaluma ci am noonu te sama mbir ci loxo suñu borom képp la nekk te sëñ Basiru nee na boobu murid niñ toll néewuñu doole buñ so buñ songoo woon ak gaa yi dañ metti waaye murid néewuñu doole boobu waaye sëñ bi ne bu ci kenn dugg moom naka jekk liggéey bi bàyyi leen man suñ borom ak lay wax mësa nangu kenn dugg ci moo tax Cheikh Sidiye sax bi mu koy tàgg gis ngeen bi mu koy tàgg ci xasida googu ab Cheikh Ahmadu Niamatan Awlaha da koy ne sëñ bi daal xéewal la bu suñ borom baaxee bi mbindeef yëpp wax nañ ne xasida googu indi woon am na ku ko doon jàng yootu sëñ bi di jàng bay di sëñ bi di déglu muy jàng di tari tari ba mu agsee ci bay di yu mu naan yarda isa jalosati umuru musalliman ilman bi anna ilahahu ajraha ne kat moom lépp lu lu xew da koy gërëm day da ciy bëgg ndax day xam ne suñ borom a ko dogal wax nañu sëñ bi bi ñu jàngee bayit woowu dafa wax ne alaana madaxanaa daane waa mi ngi mi ngi may doog a tàgg na nga xam ne li mu wax ci ne xewlu suñ borom laa ak yooyu yëpp waxut dara waaye bi mu ne ku nangu lu suñ borom dogal la rek yëg na ne tàgg na ko léegi mooy ak jullit day day day day nangu dogal suñ borom tey day wakkilu si moom kon loolu bind la bu bu bu ñu mën a jëlee ci ak dundam ci ne kat Euh, gëm yàlla ak wakkilu ci moom lu am njariñ la ci dundu jullit bi bokk na ci it yi ci mën a jànge ci dundam mooy uluwul himma mooy yitte ju kawe njariñ bi nga xam ne am na ko ci ab jullit yitte ju kawe yitte ju kawe mooy lépp looy bëgg ci lu baax nga bëgg la ci féete kaw la ca gën a kawe rek xam ngeen ne sin bi léppam lool la bi mu ñëwee dafa jël ba tam teg ko ci ne li mu bëgg a nekk mooy abdullahi wa xadimu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee mënoon naa jaar rek ci yoon wi baaxoo a jaar nekkut sëriñ lii li fi lii li fi ay am ñu muy jàngal waaye def ko daa xool lu gën a kawe loolu mooy li mu bëgg a doon mooy abdullahi wa xadimu rasuli dak ci lu ne loolu moo ko génne fii moo ko yóbbu gabon moo ko teqalee ki njabootam moo ko def lépp ba ko suñu borom mujjee baaxee ko mu am loolu noonu ba mu mën a yëkkati loo xam ne nazaani ñu ne la walal baaxil xadim allamahum bi annani al abdul xadim ba ni ko suñ ni mu waxe ne suñu borom seppi ne ko ci mbindee fi ber ko fële te it képp ku ci am tawféex xamal na ne la kii moom mooy al abdul xadim muy li ko taxoon jóg mu yitte ju kawe jooju ndax bu mu ñëwee yitteem ju kawe fépp da ciy fés gis ngeen loolu sëñ laa di nett li ci bi sëriñ bi gisee ak yonent bi salaa sallam te xam ngeen ne gis yonent salaa sallam dañuy wax ci bi bu gisee yonent salaa sallam jaxaran ci lu dul ay nelaw mooy seetaan mënatu koo yàqal ci dundam mucc na ci seetaan dootu ko yàqal waaye kon mënoon naa doy loolu ndax sëñ fi moom lañ fi njëkk a dégg ku am loolu askan bi mu bokk te askan bu baax lañ ku ci am loolu ci moom lañ ko njëkk a dégg waaye bi mu gisee loolu doy ko daa mel ne da ko yokk aw maat ni ko suñu bés di waxee si ñun mu wax yeneen saa ne ko li mu bëgg mooy bokk ci ñii ñii ànd ak moom moo muy ahlu badr ñu wax ko la ca la cay tegee lii kat ku mas a toll fi nga toll mas na koo bëgg waaye bu ñu ko waxee li ko koy may da ciy génn ndax nanga bi natt lañ lay teg te boo delloo ginnaaw lu toll ne tam fatalaay da ngay ñàkk li nga amoon lépp waaye ci yitte ju kawe yi mu ne moom de bind du roogi bay xam lu mu attan ak lu mu attanut waaye bu ñu ko mënee garanté roogi moom jomam attan na ko bu ñu ko mënee garanté roogi moom jomam attan na loolu loolu mooy yitte ju kawe dëgg-dëgg mu siñeente ak yéen ci loolu mu dox ci loolu ci la daj lim daj lépp xam ngeen loolu koor gi la ci korite gi ci la génn dem Mbàkke Baari ci safar ga lañ ko fi jëlee yóbbu ko ci géej gi dellusiwaatu Tuubaa moom loolu keroog dañu gisee coono yooyu yëpp mu daj ba suñ borom mujj ko fay nag mu ne addani yallaahu min ahli badri loolu mu ko mu signé woon yonent saa sallam mu mujj suñ borom defal ko ko ginnaaw bi mu ci doxee kon loolu lépp day rek ne yitte ju kawe lu mun ta ñàkk ci jullit la sëriñ bi du bëgg lu tuuti lu ne rek la ca gën a kawe lay bëgg bi mu ñëwee dafa fekkoon ñuy wax alfadlu lil mutaqaddimi wala maa asaha ilmu man taqaddama ne daal rek ngëneel li ñuy jiitu yóbbu nañ ko moom bi mu ñëwee mu ne déedéet ngëneel ci loxol yàlla képp la nekk yegleelu ko benn génération bàyyi beneen jagleelu ko wenn xeet bàyyi weneen ci loxo suñu borom la ne te suñu borom amul démb ak tey ak suba moom temps ci ñun la am waaye suñu borom amul lool mu mu mu xam ne mu xam ne ne moom li jullit bi war mooy ngëneel ci loxol yàlla la nekk te ku ko sàkk mu jox la mu nekkoon ci tarixa xaadiriya xëy xëy bi mu gisee Rasul sallam daal ne daal mbir yi ni mu ko gisee moom ñii nga xam ne ci Rasul sallam la ñuy jëlee moom foofu la bëgg a jëlee ci nit ñëpp maanaam ñii mën na leen def ay nawle li ñuy baax baax moo tax bi mu ci jotee rek ci yéen saa salaam wax ne sëriñ si kat ñi ngi doon topp ñëpp ay weer lañ ak ay biddiw am nañu leer wax dëgg yàlla am nañ njëriñ waaye nag leeru biddiw ak ak ak weer bu koy wax mooy jant bi dafa génnut waaye jant bi su xasee génn soxlaatuñ biddiw ak weer bi te nee na gis na jant bi te jant bi mooy yonent bi salaa salaam mu ne zahadani tuluu shamsi an nazar ila nujumi fi samaai wal qamar jant bi génn ko tax na ba xoolatuma weer wi ak biddu bi ndax soxlaatuma leen daal dox ci loolu man wéy ci wéy ci ba ni ko suñu borom baaxee daañu baax ñi li ñu amoon ci seen i tarixa bopp mu am ko ndax xam ngeen tarixa yombut tarixa yi am ci ci ci alamul islam yëpp bëriwut fu mu ne daxawaat yi ci biir tarixa yi ñoo bëri maanaam benn tarixa boo ay woote ci biir loolu moo bëri waaye tarixa yi bëriwul yu néew a néew la sax ñuy woowee tarixa yoo xam ne ay mu ne euh, ci loolu kon moom siñ ba suñ borom defal ko tarixaam muy kenn ku ñu njëkk xam ci nit ku ñuul ku ko am moo tax daana wax taalibe ne leen lan yetu la sanadu ko buum gi leen di jokkale yéen saa salaam du gudd ndax da naan man mii ne moom ne leen buum gi leen di jokkale yéen saa salaam du gudd ba fi mu ne nii mën nañoo gis ñoo xam ne seen diggante ak yéen saa salaam ñaar nit fi dox ñaar ku mel ne sëñ Muntaxa ci sëñ Basiir la jëlee mu jëlee ci sëñ Tuubaa mu jëlee ci loolu moom gis te fi ne gis ci suñu gox yi yëpp ku am lu yées juróom-benn jàpp juróom-ñetti nit yombut te sëñ bi la doon wax ne leen a yàttu wala sanadukum bu ngeen ci jàppee buum gi leen di jokkale gën san sam du du gudd taxawaay boobu mu amoon nag ci xam le ne ngëneel ci loxol suñ borom la ne benn jamono moom muñ ko beneen ñàkk ko amul wenn xeet mu ko am beneen ñàkk ko loolu sëñ bi da koo jëf ba pare da cee fësal ñaari mbir yu am solo maanaam li ñuy wax ay rupture ay révolution yu am solo la ci def benn bi jëm ci wàllu xeet benn bi jëm ci wàllu jamono ndax bi jëm ci wàllu xeet <coughs> ah, ok kon ñu nuyu sëñ Hamza moom sëñ Sonia bu di ko siyaare di ko jox wàccuwaayam kon ñaari ñaari révolution yu am solo la Cheikh Khadim def ci jëf jooju mooy fësal na ci bu baax ne ngëneelu suñu borom amul wenn xeet ko moom bàyyi weneen ngëneel amit amul jenn jamono ju ko moom bàyyi yeneen mooy li mu wax ci masaalikul jinaan ne euh, fa laysa yujibu sawaadul jismi safahatal fata wa suu al fahmi ne dar wu ñuul kat tekki wut xel mu gàtt wala ñàkk a a àgg fenn fi ci xam-xam xam ngeen ci beneen masaalikul jinaan bi sax waxaat na fa lu gën a kawe ne fa laysa yujibu sawaadul jismi adama fawzin bi azimi qismi nekk nekk nit ku ñuul kat teewu tamana am maqaama ak daraja yu mag ci suñu borom loolu sëñ bi dagg ci ay xalaat bu juunu bu nit ñi amoon ci ci ci wàllu der bu ñuul mu mu mu wane foofu ne mbir mi ngëneelu suñu borom loolu néew ci ay der bu ñuul ak der bu weex ak der bu xonq néew ci loolu waaye mi ngi nekk rek ci pas-pas ci yitte ak ci góorgóorlu mu defaat beneen révolution bu am solo ci wàllu temps mooy li mu wax ci Masaalikul Jinaan ne wala tuxassis fadla rabbin xad ala lisi taqaddumin faqat fatajahala is rubbama urifatan muaxara maa xaaba am man qablahu wa asura nekkat ngëneelu suñ borom bu ko jagleel rek ñi yàlla foog ni ñu mujj mënuñoo raw ñu jiitu woon daane déedéet léeg-léeg sax mën ngaa gis ku bokk ci ñu mujj ñi am ci daraja ak maqaama loo xam ne ñi jiitu woon sax amuñu amuñu lu toll noonu loolu euh, lu am solo la ci bi def xam ngeen sëñ bi mooy kenn nit ku ñuul kuñ xam ku am tarixa boppam boo xam ne moo ko moomal boppam bi mu ñëwee dafa fekkoon nit ku ñuul ñu di ko xeeb di ko xeeb di ko xeeb ba am ci nit ñuul ñi ñoo xam ne dañoo dañoo mujj xeeb seen bopp jàpp ne dañoo bu ñoom maanaam nit xam nga nit da nga ko xeeb ba mujj mu jàpp ne daa xeeb loolu dafa mujjoon am ñoom dal ci sëñ bi bi mu ñëwee moom mu dagg jéng yi dëpp mbir mi doxee weneen dox fent yoonu boppam wéy ci ba mujj ñëpp nangul ko mu nekk imaam ci biir jullit ñi ba ngeen di gis waa Madinal Munawwara jóge ca Xijaaz ñoo fekk si ko njaareem di sàkku si ci moom ñaan moom mi nit ku ñu nekk fii ci Sénégal ay nit jóge ci wetu barab bi sallallahu alayhi wasallam ñëw di sàkku si ci moom ay ñaan mu jox leen loo xam na ngeen a jox naala ba loolu yitte ju kawe moo ko may yii nga xam ne duñ ay jullit mujj na ñëw di sàkku ci moom dimbal ba mu di leen dimbale ci lu dul benn bi ñaar ba ci dévaluation boobu amoon mu joxe 500000 dimbale leen dimbale waa fii ndax xaalis bu waa fii koy jëriñoo at moom noonu président France 50 000 la joxe bi joxe bi joxe 500000 te jiite France cinquante mille la jox te boobu boobu mi ngi fii ci Sénégal waa Mauritanie lim leen doon dimbali kenn xamu nu mu toll pes boobu mujjoon a am si bi gaalu xaalis daf ne noonu gaal waa ko Cheikh Sidé ba léegi gaal gi ngeen ñoom xottu gaal gi mu ko yoon ba mu fees mujj àgg foo xam ne ñëpp dañ koo jàppee imam ci biir diine si ni muy doon doon bokk ci ñu mujj ñi doon nit ku ñuul jëfinam taxawaayam yitteem bi kawee tax na ñëpp jàppee ko imam ñëpp jàppee ko kilifa ñëpp fonk tubaab bi ba ci seen loolu ñu taxawaloon conseil conseil xaw lan de affaires musulmanes boole woon nañ sëñ bi muy kilifay jullit ñi donte mosu caada mosu ko yittew si Ahmad bin Baddi ci kilifay tiyaan yi gën a mag ci Mauritanie la bokkoon àggoon na ci wóolu sëñ bi donte du taalibeel wóolu sëñ bi xam ne kii li muy woote dëgg la ba mu yónnee ci moom ne nee leen sëñ bi nee leen ko na ma nuyul yonent bi saa sallam na ma nuyul si Ahmad Tijaan radiyallaahu anhu te ñu ma fayee na ma ko jotali sëñ bi teg ci ab diir yónnee fa ne leen nee leen ko yonent mi koy fay Cheikh Ahmad Tidiane yi ngi koy fay doomam Cheikh Mouhamadou Lamine nee na Cheikh Ahmad Bamba Diagne dañut ba ni génnee àdduna saa bu ci xel mi demee mu yéemu ne cey ngir xam na ne li ko suñu wax dëgg la keroog bi muy génn àdduna sëñ bi da cee def lu yéemu Cheikh doomam Cheikh Mouhamadou Lamine nee na dañoo xëy Cheikh Cheikh Ahmad Bamba ci guddi gi la génn àdduna suba teel lañ xëy ndaw suñ sëñ Tuubaa ñëw indaale ak xasida ne sëñ bi leen yabal nañ ñëw fekk si denc te yëgal yëgalaguñ ko kenn mu boole ci ak xasida wax ci wax yi doy waar ne Cheikh na ànd nag nangami gi yóbbu ko ne te loolu mi ngi ko amee rek ci menn mbir moom Cheikh Ahmad bin Badi mooy li xusni zannihi bil abdil xadim yi kaana lahu bi kalamihi baaxil xadim nan ko may rek mooy rafet jot bu rafet jot Sëñ bi boole ci xasida laqad jaa ruuxul xulusi wa ahmadu yaxruju li ahmada indallaahi maa kaana yartaji indahu baana xayrun baabuhu laysa yurtaju ba xasida gi jeex ne lool lépp mi ngi ko amee ci rafet gi rafet njort la ci Sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu wa arda kon loolu lépp ay bind la yu yuy fësal euh, sëñ bi euh, yitte ju kawe ji nga xamee ne amoon na ko te mu bokk ci bind yi nga xam ne jullit ñi dañ ko war a jàngee ci wala watani taalibe xam ngeen Cheikh Fall keroog bi muy ñëw di jéblu ci sëñ bi ci Mbàkke Kajoor foofu la yitte sëñ bi ñëkk feeñee bi mu ñëwee ci siñ bi wax ko wax ju rëy ne ko man de sëriñ bi ma doon wër bu ma ñëwoon ba gis ne fi mooy barabam dama xam ne fii la sama yitteeg sama pas-pas dina ma may li ma bëgg sama ma am nee na sëñ bi ne ko man de yonent bi salaam laay roy li may wut ci moom laa koy wut xam ngi ma xam ne asamaan sii ma sa ko tiim benn bis suuf si mas na cee teg tànk benn bis loolu doy na ma sëkk ci li ma bëgg ci moom dinaa ko am Cheikh Fall xam ne kii moom mooy waa ji mu bàyyi mu jiitu mu toog ci ginnaawam mag ñoo ñu toppoon ci Sëñ Tuubaa loolu ñu ko toppoon da leen a jommal ci lépp ñu xam ne moo leen fopp ci lépp ñu bàyyi ko jiitu toppuñ ko toppewuñ ko juddu toppewuñ ko xam-xam toppewuñ ko alal waaye dañ koo natt ci lépp gis ne moo leen ci raw ci pas-pas ci xam-xam ci gëm yàlla ci doyloo yàlla ci wéetal ko ñu xam ne kii mooy waa ji ñu bàyyi ko mu jiitu ñu topp ci ginnaaw yitte ju kawe jooju nag dañ ko war di jàngee ci sëriñ fee feeñee ci loolu ma doon wax sànq bi ko yénu feeñee ci daal ko dóos lu mu wax mu ne ko bëggul lii li mu bëgg daal mooy bokk ci kuréel gi topp ci moom rek loolu yitte ju kawe fës na ci loolu te mënoon naa doyloo rek leen di seen salaam te xam ne ne askan wi ma am maa ko ci njëkk am bu ko doyloo woon mu doy sëkk nag bu ko doyloo woon mu doy sëkk kon bind a ngi foofu ci bépp jullit ci mu xam ne dunduk sëriñ bi war nañ cee jànge yitte ju kawe beneen bi ci topp mooy bind buñ mën a jëlee ci ak dundam ci wàllu mbaax ak rafet jikko loolu nag dama ciy jël rek seere soo xam ne ki ko seere du jullit moo may gënal sax may jël ab jullit wala koo xam ne ci waa kër sëriñ bi la bokk Antoine Le Sèvre benn tubaab la woon bu nekkoon njaareen boo xam ne dañ ko indi woon rek moom yitteem moo doon mu xam Cheikh Ahmadou Bamba bi li muy woote lan la dëgg-dëgg lan la dëgg-dëgg nga xam day sëñ ba sur nen léeg-léeg sax bu ñëw day bett sëñ di ko bëgg a bëgg koo bett ba xam na ci fu mu koy fekk nee na léeg-léeg am na bis boo xam bi muy ñëw daa am ku mu àndal kooku di dajj sàkkee di muy dugg nee na àggoon nañ ci ñoom taalibé yi ñenn ci ñi taalibé yi ne sëñ bi ñaanal yàlla mu jëlee fi kii ndax ni mu lay def neexuñu nee na sëñ bi muñ ne leen kii suñ borom daf maa xamal ne dafa ñëw rek ngir setal sama mbir nee nañ mu jaaxal leen ndax kii ni mu melee ba pare di setal mbiram waaye bi mu demee ba noppi ba bind rapport bi bi mu xam ci sëñ bi rapport bi gudd la am na ci lu ñëw ci téere Omar Ba boobu bi mu génnee rapport bi lañ xam ne lii la siñ bi doon wax ci biir rapport bi da ciy wax ne Cheikh Ahmadou Bamba mii nag li ne ci moom ci jikkooy rafet ak xol bu sell ak yéen ñépp aw yiw moo xam ab noonam wala xaritam àgg na ci foo xam ne mbooleem ku ñuy tudd ci nit ñi jiitu woon buñ ko ci méngale moom mu jiitu ko ci moom mi daane ñi ko gën a réere gën a réere gën a réer ci nit ñi mooy ñi nga xam ne mas nañ koo tumaal benn bis ne bëggoon na daray nguur wala daray àddina lii ki ko wax dub jullit kon loolu mooy wane ne jikko ju rafet jikko ju rafet jullit war na koo fonk saa su ne xam ngeen sëñ bi wax na ne bi mu nekkee Gabon am na kenn ku nekkaloon ci tubaab yi ci njiit yi nekkoon foofu koo xam ne mbaax gi mu xam ci sëñ bi taxoon na bu buy dem mission waa këram sëñ bi la leen koo xam ne da nga ne dafa def dara ba nga jàpp ko indi ko fii ba pare booy dem di ko dénk sa waa kër loolu min ci minan loolu lépp di wane ne euh, mbaax gi suñ borom da koo bindaale mbaax da koo bindaale xammee wuti ku ku ku ko bëgg ku ko bëggut bokk na ci mbind yi man a jëlee ci dunduk sëriñ bi it mooy ak nite ak dégg sa jamono loolu dafa fees dell ci dunduk Cheikh Khadim Radiyallahu maanaam xam jamono ji lim laaj nga def lool sëñ bi bi mu ñëwee fekk na ay jàmbaar yu mag jaar fi xeexal lislaam ba sonn bi mu ñëwee daanaka mën nga ne jullit ñi ñaari xaaj lañu woon yi gën a fës ci kilifa yi ñu gëm ne dañoo war a xeexal tubaab yi jël seen gànnaay ñooñu tubaab yi faagaagal nañ leen ñëpp ndax doole yi tollawut ak ñeneen ñu gis ne biñ màndaxee diggante ceddo yi ak tubaab bi jàpp nañ ne tubaab yi tane ndax lu métti bàyyi nañ leen ñu jullee gi def yëfi fa ñu maslaa ak ñoom ñooñu ñoo ci gën a bëri xëy mën naa benn benn yu génn ci loolu sëñ bi moom bàyyi ñaari yoon yi jëlum gànnaay waaye maslaa wut ak tubaab yi xàll yoonu boppam mooy bi mu gis ni ne tubaab yi jiitu nañ ci ngànnaay dafa dem jiitu leen ci xol yi ak ci xel yi mooy ci wàllu xam-xam xam ne loolu beneen révolu beneen euh, beneen beneen beneen résistance la boo xam ne bu pacifique la du jël ngànnaay waaye buñ demee ba pënd bi wuri rek mooy ëpp le résultat moo tax mu ne yu inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan xadiman wal muhayminu shahida ndax xamoon na ne mbir yi foofu lay mujj moo tax bi bi mu nee bëri rek dafa samp ay daara samp ay nit seexal ay nit tasaar leen ci mooy waral bi ñu ko yóbboo ci géej gi ba foog ne mbiri jeex na fekk gars yi ñu ngi liggéey ci suuf bu ñëwee day mel ne benn acier buñ teg ci biir weñ rek bu yëkkatee lépp da koy topp moo tax bu ñu ñëwee bi ñu ko indee xam tubaab da leen ñu daal jaaw dara ci kawam yóbbu kon loolu it bind la boo xam ne nit ki war naa xam ne jamono ju ne rek rawatina ku bëgg a xeex say ak ak sa yelleef ak yooyu maanaam résistance daal mën naa am te violence du am loolu man naa ne te Sëñ Tuubaa jàngale na ci aw yoon bu baax a baax danañ jàngee ci ak dundam mën a jéggale ak di suuxat jàmm te yàlla rek tax nag te yàlla rek tax doo jéggale ngir da ngaa amul pexe doo jéggale ngir ay calcul la loolu waaye da ngay jéggale te yàlla rek tax xam ngeen suñ borom suñ bi wax na ci ay mbindam ne keroog bi mu génnee baar yi suñ borom da koo boole ci ahlu badr ne leen nañ ànd ak moom te saa bu ko noonu sonalee ba ñu war a réagir nañ ko def buñ ci waree dugg waaye sëñ bi dem na ba ñëw mës ta jëfandikoo ahlu badr gis nga da koy junj sax fa woon sa amri li mu xew amri ma ahli badri bilam ci raay jëfandikoo loolu mooy ku bëgg jàmm dëgg-dëgg am ngaa naay te nangoo ko jëfandikoo mën a jéggale lool tey jéggal te yàlla rek tax gis ngeen lim daj nga xam ne bi ñu ko yóbboo daat nee na tey sama kër yi wéet na tasaare nañ ma ak sama jabar bi teqale nañu te lan dong ma ko yóbbee mooy li may liggéey yoon France la xusuuri xalat wal ahlu an ni tafarraqat li matxi lazi anhu madiha xasiru coono yu métti mu daj ko xam nga sëñ Tuubaa du jàmbat ku dem bay wax tubaab ne leen kat tooñ ngeen jaamu yàlla bi tooñ ngeen ko tooñ ngeen ko ci loo xam ne tegu leen ko benn dëgg tooñ ngeen koo xam ne du fayu génn ngeen ko digg bëccëg ci njabootam mu daj ci coono yu dul jeex te tegu leen ko fenn zalamtumul abd allazi laa yantaqib li nafsihi mujahidan lil muntaqib axrajtumuhu min diyaarihi bila xaqin wa jaahada wa xaasaahul balaa diggante boobu daj na ci lu ne ci ay mettit ak i tartar daan leen waaye loolu lépp bi mu amee it li wajhi man anhu afa ankum afa jéggal na leen ngir yàlla ngir jëm yàlla topp leen dara nee na li fi des daal mooy mi ngi ñaan suñu borom la mu defal ko li mu bëgg waaye jéggal na leen te yàlla rek tax waxoon na ne sax tolloon na ci mbindam foo xam ne suñu borom xamal na ko ne ko ndax nee na bi xasaay di jihaad yi doon bind di moolu na ci suñu borom xamal ko ne ko boo bawul mbind kuy ab yéefar te ne ci kaw suuf bu tuubu dina alko mu jéggal leen bàyyi muy law anna nii lam atruk muy eh, law anna nii lam atrukil kitaaba mujahidan biha zawil isaaba lamaata bil wabaayi kullu kaafiri in lam yatubu li ilaahi gaafir laakin afawtu an jamii nnaasi li wajhi rabbin muhlikin xannaasi nee na suñ borom mu na ma ahmadu boo bawul mbind mi kuy ab yéefar bu tuubu danaa ko alak mu ne kon jéggal na leen te yàlla rek tax loolu ci bind yi wala jëlee ci mbindu sëriñ bi la ci mën a jéggale moo tax fu ne dafay seeral suñu borom ne ko jéggal naa leen te yàlla tax washhad bi afuya anil balaaya afawtu anil aadaai turran li wajhi man nafaahum li gayri samaran lastu alfaw afawtu anil aadaai ma safrikal kali jéggal naa leen ak xol bu sedd guy jéggal naa leen te yàlla rek tax fu muy wax jéggal naa leen sax faaw da ci boole suñu borom xam ne yàllaa tax mu jéggal loolu bind la kon bu am solo moo tax gis ngeen li mu bindoon bi mu demee ba ñëw ne ku gis lii kat na xam ne ki ko bind jég jéggal na képp ku ko mas a tooñ te moom du ñaan yàlla ab tooñkat mi ngi ñaan suñu borom mu jëggal mboolem ay taalibeem di xamal ñëpp it ne li mu yéene taalibeem yi moom la yéene mboolem jullit ñëpp loolu suñu tubaab bind na ko. loolu bëgg jàmm foofu la ma neen ku ma tooñoon jéggal naa la du ñaan yàlla sama waa kër li ma leen yéene moom laa yéene mboolem jullit ñëpp bind ngi ci ci ci ne kon jullit ñëpp ay mbokk lañ yéene yow jullit ñëpp it ñëpp a ko war def waaye rawatina ñu bokk ci waa kër sëriñ bi. yéen a ñëpp jàmm ji amul fu mu yem waxtu waa ngi sori waaye amul fu mu yem gis ngeen daarul ma naan li mu doon métti métti bi ñu ñëw di ko jàpp si mi ngi génn xasi rek euh, rabbi bi maaye soxal di wax ci biir euh, yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jami al wara yaa haadiyan da yow suñu borom yow mi borom nguur gu mat yow mi nga xam ne weesu nga fooy fooy fayantoo maa ngi lay ñaan nga yërëm mboolem bi def yëpp loolu euh, bëgg jàmm foofu la mën a yam waaye nag lim doon bëgg-bëgg jàmm yi beneen bind ko bu ñu mën a jël ci ak dundam mooy am fulla Sëñ Tuubaa ku am fulla la woon ci boppam lim doon lewet lewet mën a nëbb mer du topp kenn teewut kenn du ko ñaaj li mu nekk nekk ci biir liggéey fulla ji jamono sa saa su ne day feeñ moo tax Sëñ Basiru nekk ne ba mu nekkee Gabon am na benn waaju fa nekkoon doon ko fontoo di ko dëngee ñëw ci moom sëñ bi ko daal damaa bëggoon li nga xool noo maslaa ak moom rek ndax ni lay def daal gënut ma bëggoon rek nga maslaa moom nee na bi ne ko soxlawu ma maslaa ak moom ndax jaat gi ñu koy def ñu ko koy yett te leen mu ne ko laa axtaaju laa musaalahatihi li annahu xaruba tamaamu naqsi taabutihi lazi yuqbaru bihi waa ji nee na ay fan yu néew lañ ci teg waaja waaja feebar faatu faatu sax dafa dee dee saa si nee na mu ñëw ci sëñ bi ne ko man daal sa mbir yéem na ma ndax waa ji ma doon wax ñu ngi noonu ñu def ci ak keesit néew jëmee ko Dakar faatu na yamqutuhu yamqutuhu sultaan wa nasaara min yawmi fii taabuuti xabrin saara amut sikk sëñ Tuubaa ku ko ku ko xëy tooñ bu yororee da nga koy gis amut sikk gis ngeen bi muy dem daanaa ci fulla ji Merlin mi nekkoon général xam ngeen sëñ woo nañ ko ay yoon génn ndax amul amul ndigal Cheikh naa wul da benn naa bi mandal nee na bi mu jubee Merlin mu nuyu ko moom Cheikh naa mooy Cheikh si di yebaloon nee na bi ko sëñ bi jubee bëggoon nuyu Merlin dane non bañ na du nuyu sëñ moo xam bëgg nañu wut bi mu ko nuyuwut ah moo xam ne sëñ bi sëñ Tuubaa gi ko nuyuwut yaa ko yëg waaye nee na bi mu ko nuyuwut Cheikh naa neen bi mu ko nuyuwut sëñ bi dafa wax ci kaw ne alhamdulilahi alladi manaa hada alkafira min an yamassa jildi jildu min an yamassa min an alhamdulilahi alladi manaa hada alkafira min an yamassa jildi jilduhu ne sant naa yàlla mi nga xam ne dox na sama diggante ak yéefar bii ba yaramam laalul sama yaram ca kaw nen la ko wax Cheikh naa ne bi ñu génnee sëñ bi da koy tooñ naa ko yaa Cheikh naa laxat baa laxta fi li ixtisaar naa ko Cheikh naa nag ni nga wàcce sa bopp ëpp na nag yii kat ëpp na waaw Cheikh naa foofu la toll moo tax loolu di wane ne fulla ji su Tuubaa li muy baax baax li muy bëri bëri yéen ne fulla ji moom kenn du ko ñaaj loolu ci bind yi ñu war a jëlee ci moom ci la bokk euh, ma njëkkanteeg waxtu tuuti rek bokk na ci bind yi ñu ci mën a jëlit mooy sax ci say gëm-gëm ay principe sax ci suñ tubaab mës a soppi maanaam li mu déparé woon ba ni mu fi jógee mës a soppi ba mu fi nekkee jamono si suñu moroon sëli ba ni fi suñu moroon sëli jógee ba ba ni mu fi jógee moom mës a gis ngeen jamono yi suñu moroon sëli xam ngeen xasida xaalu safi woon li ko indi woon mooy ay nit yu mu romboon rek dëkk bu suñu moroon sëli demoon di fa gane muy dem di jàngi ànd ak maam Thierno bokk ab téeréem bi mu leen rombee nee na benn waaye xool ko am kum ne xanaa kii mooy seen mbokk mu wéré di ñu may dégg nee na kooku mbokkum suñu kooku nag amum ah, daal ñu la mel daal ginnaaw bi lañ ko wax sëñ bi ci ku la romb rek bokkub téeram bi jàngee nga ne kii wérut ci la binda xasida ko li safi anhu basari wa rahbati an zawil asiani fi lbashari ba xasida ko jeex ba ca mujj muy wax na alhamdulilahi is kaanat su dee ndof gi mooy sax ci wird sax ci tudd yàlla sax ci kennal suñu borom ak di ko xalaat màggal bu dee loolu mooy ak ndof sant naa yàlla ci ndof gi ngeen wax damaa dof loolu mu sax ci rek bi fi sëñ Mor Anta Sali nekkee nga xam ne xam-xam dong moo ko yitteel li nit ñi nekk yitteelu ko bi fi si moom seen nekk Samba Lawbe Fall àggoon na ci jarbaatu Lat Joor sàkku ci moom mu ñëw féete ko fi si moom seen féete Lat Joor mu jox ko ngànt ne ko doomi jullit yi ñëw di sàkku ci sama ngoor mooy ma ma leen ma baleen fi da ko wax loolu ngir rafetal rek ne ko sama ngoor mooy ma daal ma baleen fi di ñëw di di di di ànd ak yow sax ci loolu loolu noonu moo wéy bi fi si moom seen jógee ñu wax ko ne ko nañ dem ci Lat Joor mu jox la place bi mu ko joxoon mu joxe ngànt ne leen man laa azabu ila al umaraay wala argabu fi fi dunyaahum wala atlubul karamata illa min allahi rabbil arbab ne leen man du ma dem ci buur yi seen mbir yitteelu ma te teraagal suñu borom dong laa koy sàkko mooy li muy xaalu li yantal ni awaabi salaatin taxus jawaani si toog ni kulla maa xin fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi wala suraadiya gayri l ilmi wa diini wala su arju wala axsa siwa maliki li annahu jalla yugnii nii wa yunjii nii nee nee nañ ma kat naa jàng jëm ci buur yi waaye ma ne leen nag man yàlla doy na ma doyloo naa ko xooluma lu dul suñu borom wutuma lu dul moom ba waxta mujj ga euh, nu mu koy waxee sax euh, in kaana aybiya zuhdun fi xutaamihum fa zaaka aybun nafisun laysa yuxzini su fekkee lii ma wan ginnaaw poñatum àdduna mii moo tax ñu di ma sikkal sikk soosu man bëgg naa ko amul sikk bëgg naa ko daal euh, loolu mooy rek ni sëriñ bi doxee nga xam ne bi mu ne bërit àdduna dafa daw wut si ko mu wan ko ginnaaw mu dox ba yàgg àdduna kër kër newaat cëpp ci kanam moon ko ginnaaw bañ ko faale muy li muy wax ci mun a wiru surul aqbalati dunia ilaya qablu wa baaduha fazala anil kablu moo tax gis ngeen ci njaareem bi Cheikh Fall sëñ Fallu ci kër sëñ mag radiyallahu anhu nee na sëñ mag bi jox leen dab dugg ci biir ne leen nañ xewlu Cheikh Fall nanguutu xewlu ne sëñ Fallu xewlu ba noppi bi sëñ mag bi génnaatee de laata muy génn bi sëñ Fall di xewlu bu yàgg mu xool Cheikh Fall ne ko joxuñ ko sëñ bi ne ko moom yéen ñi ko xamoon démb ci Mbàkke Kajoor ak tey ndax am na lu soppiku ci moom nee na Cheikh ne tekk ba yàgg mu ne ko su fekkee am na lu soppiku ci moom de xanaa karaw gi la bu njëkk da ko daan bàyyi mu sëq te léegi da koy wat ne ko loolu daal laa xam ci lu soppiku ci moom sëñ Fall nee na bi ñuy wax loolu sëñ mag bi génn ñëw daal ne xewlu ngeen mu ne Cheikh Fall nee na sëñ Fall ne ko nee na naa naa xewlu ba noppi daal sëñ bi ci baatin bi doy mu ne ko tey Ibra Fall moom de Mbàkke Kajoor ba léegi dara soppiku ci moom loolu fës na ci bu baax sëriñ bi euh, ne naka jekk ci loolu la sax mës ta ku ñu ko xam ñëpp lool la ñuy wax mës ta soppi mës ta soppi kon bind ngi ci ne nit ki lim xool ba xam ne lii mooy dëgg mooy lu baax dara war ko cee jóge bu juróom wéet moom képp la bu juróom wéet moom képpit da war a sax ngir ñu njëkkanteeg waxtu wi ay bind ngi nii yoo xam ne mën nañ ko jëlee ci jëflante bi war a am diggante nit ak ay mbokkam mooy ñàkk a xeeb say mbokk li suñ bi waxoon ne nit ku ne mën naa ñett mbokkam waaye mun leen ñett mën naa ëpp ay mbokkam waaye mën naa ëppale ay mbokkam waaye mun leen ëpp mën naa gën ay mbokkam waaye mënu leen a génn mën naa raw ay mbokkam waaye su àndut ak ñoom aw doxinam du rafet moo tax gis ngeen kooku ñëwoon ci moom ku sant Mbàkke ne ko ñun dañoo jaaxle ndax gaa ñi dañ ne yow amoo mbokk te ñun yow dong lañ am sëñ bi joxoñ ko ne ko bu ma ko waxati gisoo kenn ko am ci mbokk kooku commencé nag képp ku ñu naan sama mbokk la ku ne lam baax la képp lañ bokk ma ak moom bu ngeen xoolee ci bataaxal yi muy bindante ñi mbokkal da ciy fésal lool mbokk gi mu amante ak ñoom ku mel ne suñ moo jaara ilaykum ayyuha shaqiq a cheikh mouhamad jaara yow mi ma bokkal ñaari waajur al amu ibrahim al amu cheikh ibrahim muy sëñ Mbàkke Kajoor yab na amati wa xaali yow sama doomi nijaay yow sama sama doomi bàjjen sëñ Mbàkke Buso ila axihi allazi lam yuxaalifu fi sigarihi wala fi kibaarihi wala fi kibarihi ibrahima ibni walidi lii maa ngi ko bind sama mbokk mi nga xam ne ci ndawam ak magam ma juuy ak man ibrahima mi nga xam ne ñoo bokk benn waajur wu góor muy maam Cerno gis ngeen siñ bu soobe ay ayoha cheikh wal xill wal xaal yow sama xarit sama nijaay sama sama sëriñ ngir jàng na ci moom gis ngeen bi muy bind am na ñu bind yaa ixwaani wa asaari yooyu yëpp day wane ne sëñ bi comme ci bind ñi ñi may wax ñëpp doo ci gis kenn ko bind ab bataaxal sëñ bi moom ba ko tudd mbokk gi ndax ñoom ab sëriñ lañ ko jàpp xam ko sëñ borom waaye moom moo leen bëgg a mbokk gi dafay nekkoon laata lii si war a sàmm wéer ko kon loolu bind ngi ci ci nit lu mën a mel ci xam ci alal ci daraja ci barke ay mbokkam da leen war a fonk te war leen a loolu bind la boo xam ne dañ ko war a dañ ko war a bàyyi xel euh, bokk na ci bind yiñ ci mën a jël ba léegi it lii moom naa ko tëb rek nga xam naa ne waxtu kii na bii mooy ñi nga xam ne ay sëriñ lañ te duñ suñuy sëriñ nu ñu leen war a jàppe sëriñ yi ci lislaam te duñ suñuy sëriñ loolu suñ bi jàngale ci ne ni ñu leen war dox ak ñoom rek bil i'tiqaadi taam wa husni zanni wa adamil i'tiraad ñett yooyu ñu gëm leen maanaam dëggal leen rafet jot ci ñoom te bañ leen a dingat bañ leen a dingat donte duñ suñuy sëriñ moo tax gis ngeen ci Masaalikul Jinaan muy muy wax fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan walan yaxida sawaun intama ila aljilani aw intama li ahmad atijani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum qatan ala sawaabi ne wird yëpp bu ci nit ki jàpp te tënku ci sàtte yi mu ngi ko jëmee suñu borom sëriñ sëpp ci dëgg lu baax la ne ci lu baax lañ doon woote yemut ci loolu moom sëñ bi waaye dafa mujj sax wax taalibe mi ne leen fu ngeen gis ak ñaan wala wird bu jógee ci nit baax may naa leen ngeen jëfandikoo loolu ci Sëriñ Tuubaa du ma ne ci moom dong nga koy déggee waaye néewaa am na ci tariixa yoo xam ne sax boo ci nekkee di yenn yi dañ la koy tere te loolu luñ mën a layal la luñ xam ne waaye moom daa wax sax ne leen wa amma ahzabul aqtaab wa daawaatu saalihin fa azintu lakum bi isticmaali bi fa azintu lakum jamian fi lamali bi kulli ma tayassara bi kulli ma tayassara lakum minhu minha haysu wajadtumuuh ñaan yi jógee ci sëriñ si ak seen ahzaab yi lu ngeen ci mën a jëfandikoo may naa leen ngeen jëfandikoo loolu mooy dëgg-dëgg ubbi ko dëgg-dëgg yi xool lislaam te bàyyi parparloo ci biir lislaam bi yemul foofu wird yëpp da ko doon jëfandikoo ba mujj wax ne ñi yori tarixa ñëpp gërëm nañ ko radiya anni sibtuhul jilaani alayhi ridwaanu allazi alaani radiya anni sibtuhu abul xasan alayhi ridwaanu xalidul xasan radiya anni sibtuhu tijaani alayhi ridwaanu bi tijaani ne ñett ñooñu gërëm nañ ko ñooñu bu ñu ko gërëm mooy ñi yor tarixa ñëpp gërëm nañ ko ne ñi suñ borom gërëm ñëpp gërëm nañ ko ne xulafa al arbaa gërëm nañ ko radiya anni xulafa al arbaa xustu ridal muqarrabin al mutbaa ne suñ borom waa xulafa arbaa xulafa rashid gërëm nañ ko ñi suñu borom tànn ñëpp gërëm nañ ko moo tax loolu bind la boo xam ne war nañ koo jëlee ci sëñ bi ci nekkat da ngay am sab sëriñ jàpp ko waaye sëriñ sëpp nga nangu leen te bañ leen diinat bind bi it mooy suñu diggante ak suñu mbokki jullit yépp rek ñi nga xam ne bokkuñu ak ñoom fu ñu fu ñu féete li ñu war a jàpp rek mooy li suñ boo xam ne al muminuuna ixwati wal muminaat lii axawaatun wa xayaati xasanaat jullit ñëpp ñu góor ñi ngi jigéen ñi samay mbokk lañ wax ñaan suñu borom ne ko na ko may mu mu mu yéene ñëpp aw yiw wa aghnina bi hubbi kulli muslimin wa najjina min sharri kulli mujrimin nag ma def ma bëgg jullit ñëpp yéggi foofu sax ba sol bu avocat ci kanam suñu borom bi défendre jullit ñi wa najjihim wa aafihim wal tuf bihim wala tuaxisum bi kusri zanbihim ba bay di jeex ñii kat jéeg bu leen topp fa innahum wa in ko yaa ahad li xaflatin lam yushriku bika ahad buñ la moyee seen xol yi moom yow képp lañ gëm xam nañu yaay yàlla yaa fi nekk buñ la moyee it dañoo topp seen bakkan rek kon jéggal leen ne ko nag sa ma léegi boo leen ko joxee du la wàññi dara te ñoom buñ ci jotut seen dara lu baax kon maa ngi la ñaan nga jéggal leen fala tuwaaxisum bi maa laa yanqusuk wala humu habil lazi laa yanfaw àgg ci wax suñu borom ne ko kat laysa li ummati nabi siwaaka yaa waaxidan ak sartali jadwaaka ne ko kat xeetu yoon sansom bii amuñu kenn ku dul yow ma waxin bi muy wax ak suñu boroom sax da xam ne dafa am tawféex yow mi nga xam ne kat sa xéewal li bari na ci man ba mun ma koo lim maa ngi lay wax nag nga gestu xeet yéen saa sallam gestu leen ndax amuñu ko dul yow Sëñ Tuubaa ni muy ñaanee suñu borom sax ndimbal da ci am da ngay xam ni ñaan gi buy noppi moom ñaan gi nangu ndax fi mu ko yaaru shakawtu umuri wa zanbil azim li rabbil xadir al gafur rahim inni aqulu wa inni al yawma zu xajali min kasrati zanbi wal afati wal wajali bari na bari na yuñ ciy wax fa inni la imun asirul hawa wa asin walakin ilahi halim ba bu wax ak yéen sax sax yaa sayyidi yaa buxyati yaa yaa junnati haasi mubayaatun ila yawmi liqa yow sama sopp bi yow sama ki ma sopp maa ngi maa lii kat ab jaayante la maa ngi ko jaayante ak yow ba ba ñuy dajama ak yow nga xam ne fi muy buy wax sax da ngay xam ne kii daa am tawféex ci anam gi muy waxee bi ma ciy mujjee rek mooy ay bind yoo xam ne nag kilifa. kilifa war na koo am ci digganteem ak ñim yilif bi ci jiitu mooy kilifa gune bu jiilifee ak njabootam war naa am seen yërmande loolu danañ ko jàngee ci dunduk sëñ bi yaa rabbi jaalil muridina ma fi xisnika alxasin wa shamlaj maa suñ borom murid maa ngi lay ñaan nga dajale leen nga boole leen ñu nekk benn aar leen te buñ teqali ko yërëm leen bu amee ay jafe-jafe lu mu ci man ko ci def gis ngeen ba mu nekkee ca Gabon suñ Lampagne set ak euh, suñ ba ca des ñaar lañ am na fu ñu leen yóbboon Luango ñu bind bataaxal yoo nekk suñ boobu suñ baa ngi Gabon di ko wax ne ko tubaab bi dañoo indi fii wax ay wax daal di ko wax seen mbir sëñ bi nee na bi ma jotee seen bataaxal rek a aslamat alaya dunia wa takaddara waxti shafaqatan lahuma nee na àdduna dafa lëndam këris ci man ma nekkatuma ci jàmm daal ndax euh, yërëm naa leen ndax xam naa tubaab bi bu baax a baax te xam naa ne mën nañ leen def lu tax seen ndëm ak seen pas-pas seen borom am lu ci sëkk nee na dafa maa fekk may bind ak xasida ci saasi dama soppi ni ma doon bindee ñaanal leen yaa xayra gaafirin zunuban makka wa xayra xaadirin asiran fakka ufkuk riqaabal muslimina fakka wa kuffa anhum ma yajuru shakka yow miy jéggale bakkaar yi yow miy tinki jéngi tinkil jéngi jullit ñi te musal leen ci lépp lu mën a indi jiixi jaaxa ci pas-pas bi ñu war a loolu kilifa diine daa am boobu responsabilité bu ko yëgee ak bu ko yëgut yërmande ji mu war a am ci ñi nga xam ne da leen da leen na leen da leen a jabote ak nosu sëñ Tuubaa jàngale na ci lu baree baree bari dëkk yi mu sos jëwriñ yi mu doon sanc yi mu doon yi mu doon samp maam Cheikh Anta Fee Daaru Salaam sëñ Mbàkke Bousso bi muy dem Mbàkke Baali mu bàyyi ko Touba borom Daaru Mooti yore daaray xam-xam ji sëñ Daa Abdourahmaan yore daaray alxuraan ji bi muy dem ci gée gi mu jël njaboot gi teg ko ci loxol maam Cerno yooyu nosu googu noonu loolu bind la ñu war a jàngee bi lim bëgg mu leer ci moom boo xoolee matlabul fawsayni nga xam ne kii lim bëgg leer na ci moom maanaam mashron bi am na ruya vision bu leer am na manhaj muy méthode bi mu koy jaar xam na ko am na waax yi tamit ci lim soxla ngir mën a ngir a jëf loolu waaye fonk diisoo bokk na ci li kilifa war a jàngee ki dunduk sëriñ bi mooy fonk diisoo ak ñi nga yëlif tontu yàlla yëlif li suñ bàkk bu di wax naan képp ku nee nañ képp ku bëri li muy diisoo lam yaadam inda sawaabi maadihan wa inda alxata'i anzira képp koo xam day diisoo bëri lu muy diisoo bu jëfee bu dee noonu ñi danañ ko tàgg bu juumee danañ ko jéggal ndax kuy diisoo la sëñ Tuubaa gis ngeen ne école ko bëggee ubbi njaareem dafa dajale mag ñi laaj leen seen xalaat ci tënk rek xalaat bi sëñ Mbàkke Buso lañ mujj jël bi mu ne nangu nañ ñu ubbi fi daara ji waaye ñoom ñu jàngale ñun ñu tubaab tubaab na bi waaye it bokk na ci bind yi ñu ci war a jëlee it mooy ku yilif ak njaboot war nga di leen àttu saa yoo ko jaree saa boo leen war a wax dëgg nga yaar ci digg bi nag xam ngeen ni suñ Tuubaa déclaration bi mu njëkk a def Mbàkke Baari fit moo ko may ndax ñi fi nekkoon ñëpp xam-xam moo leen fi indi woon mu xëy xëy ne képp ku fi xam-xam képp indi woon man ngaa yeewi ko ñi ëpp dañoo dem ñun ñoo fa des Sëñ Basiir nee na bi mu nekkee fii ci Touba mas naa yónnee Daaru Salaam ku ñu wax Sëñ Ablaye Jaw ne boo demee neel fere ku fi àdduna képp indi mën naa dem ku fi àllaaxira képp indi mën naa dem ku fi àdduna ak àllaaxira indi man ngaa dem ku fi yàlla képp indi nag mën ngaa toog loolu ku ko waxoon tey ji bu suwaa doo gis kenn ndax mbooloo mi kenn nekk fi ak junni nekk fi ñoo moom ci dëgg rek lay ànd loolu maanaam di wax lu leer bu ñu ko waree wax loolu bind la ci kilifa yi war a jàngee ci Seex ci Seex Xaadim gis ngeen rakki Lat Joor yoo jébaloon Biram Kodde bi mu jébaloo ci moom da ko ne la nga jëlee woon ci xarab sàmm saa da ngay dem delloo lépp ma doog a nangu njébal boo ko def du ma ko nangu lépp nag ci ay xëccoo ki yëf-yëfaan ba Lat Joor sax xelam nekkoon na ci dal ci kaw sëñ bi mujj bi mu am sens dal ci kaw yooyu yëpp day wane ne naka jekk li suñ bàkk bu soo waxoon ne wallahi maa ahid naa xattu yuqiru ala al manakiri euh, yuqiru ala al baatili aw yaskutu ala al manakir laa xaaifan wala gaafilan ne suñ tubaa ñun ñu ko xamul mosuñu koo gis mu mu nangu ab safaan wala mu nopp ci naka su dul noonu du ci noppi ngir ki ko def da koo jege du ci noppi ngir liñ jëf dafa tuuti saa bu ñu defee nag sudu noonu ci saas day at suñu mel la mi joom mi ngi nettali ne am na bis ci njaareem waa barsàq yi toog am benn soxna bu leen seet si fi suñ baa ngi leen dégg ñu ngi ci am soriwuñ ko lool soxna sa di jëw di jëw di jëw di jëw ba yàgg rek sëñ bi gëdd leen nee na bi mu tàmbalee jëw moom waa barsàq yi dañu dañu waxatuñ ndax xam nañ ne sëñ bi da koy bañ waaye nee na sëñ bi dafa ju gëdd leen rek ñu daw ñoom ñëpp ñëpp daw nee na sëñ bi basan gi ndaw sa toogoon da ko indilul taal ko ci keroog na basan gi mu toogoon nañ ko lakk loolu lu kawe la ci jëw jëw maanaam jëw niñ ko tuutalee léegi ak moom mu àgg ko foofu basan gi mu toogoon sa la ko taal loolu ci bind yi ñu war a jëlee ci loolu la bokk bokk na ci bind yi ñu ci war a jëlee mooy kilifa ak diine ak kilifa aada ni ñu war a jëflanteel mooy noonu suñ bi waxoon rek ni mu doon jëflante ak ñoom mooy di leen laabire di leen wax dëgg di séq ak ñoom jàmm ngeen njaboot gi yéen a ko waaye saa bu leen waree laabiré mu laabiré leen bu leen bu leen di laabiré mu leen fàttali leen fi baax ak leen fàttali seen ëllëg ku xool bataaxal boobu mu yónnee woon ku mel ni Ahmadou Makhourédia wala bi mu yónnee woon Sambalaw bi yaay loolu fees na ci lool lool lool bokk na ci bind yi ñu ci war a jëlee mooy kilifa kilifa njaboot kilifa ak njabootam rek nu mu war a jëflante ak ñoom mooy li sëñ bi bataaxal bu mu bindoon yónnee ko mag ñëpp doon bind ne nañ ko jàngal ndax da ko bëggoon a jàngal te ko fi ne nañ ko jàngal soxna gis ngeen sëñ Mame Lamine nee na bind na juróomi kaamil waa barsàq yi daanaka ñoom ñëpp noonu lañu loolu lépp di wane ne daana yittewoo lool njaboot gi ñu di leen jàngal ak ñu am xam-xam ñu xam seen xam-xamu kon su ma bëggee tëj rek ci juróomi minute mën nañoo wax ne rek euh, bind yi ëpp solo daal yi ñu mën a jàngee ci dunduk sëñ bi mooy jullit ñi war nañoo fonk mbokk jullit gi dox seen diggante war nañ ko fonk war nañ koo bàyyi xel xam ne euh, suñ borom a leen ko boole te lu ñu war a sàmm la jullit ñëpp ay mbokk lañ ndax loolu suñ tubaab di wax naan xot ummatal mustafa an kulli mafsadatin wal tarxamil xalxa yaa man jaddahum badaa nga xam ne day jéggi sax xeetu yu di wax ne mbindeef yëpp rek euh, yow mi nga xam ne seen maam aadama yaa ko bindoon na nga leen yërëm ñoom ñëpp kon loolu bind la ndax am na fu muy waxee naan chaxalat ni ibadat rabbil alamin wa xidmatu xayril alamin wa lishtigaalu bi masaalihi alamin jaamu yàlla liggéey yonent bi salaam ak jëriñ bindee fi ñett yi ñoo tax ba taluma di mbiccoo ak di mbaaloo loolu bind la ci ab murit war naa fex boo tam jot war nañ cee jàngee ni ñu ko waxee sànq nit ku nekk mu dégg jamonoom xam fi jamono toll muy doxe noonu ndax li Sëñ Saaliw waxoon nañ àdduna ab tëli la ab tëli la bi ni nga ko fekk rek noonu nga ci mën a dawee boo fekkee ay pax ci ay pax ngay daw boo fekkee mu tàlli ci lu tàlli ngay daw boo fekkee ay doodaan nit ci ay mën a daw kon jamono ju ne it xam ne mbir yi dañ ko war a dëppale jamono wàññiwu ci dara nañ tënku rek ci njàngaleem lislaam wattandiku lépp lu jëm ci parparloo ci wàll pas-pas ak diine ndax sëñ bi ne woon na man itaxasa inna wa innama falaa yuaadi muslima maanaam inna cheytaan lakum aduwwun ak innamal muminuuna ixwa ne ñaar yi ku ko bàyyi xel doo noonoo kenn mooy seytaan li alxuraan wax ne seytaane seenum mooy seenum noon ne noon bi leer na ak li mu wax ne jullit ñëpp ay mbokk lañ ak li mu wax ne falaa tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa képp ku ngeen gis muy wax laa bu leen ko noonoo na ngeen ko def na ngeen ko def mbokk kunu muhibbina kunu muhibbina alxuyuura li jamia xalqi ilaahina almuqaddimil badia mbindee fi suñ boroom yëpp na ngeen leen yéene yiw te na ngeen leen yéene ak mbaax war nañoo jàng ci mbindum ci dunduk sëriñ bi jikko ju rafet xeex ñàkk xeexuk réer xeexuk réer sëñ bi lim sampoon ci ay daara lim wutoon ci ay téere xam ngeen daara ji sëñ Mbàkke Bousso nee na sëñ bi lim ci daje woon ci ay téere kenn mës koo gis yoo ci gox bi muy daara ji nga xam ne bëggoon na ko indi fii ci Touba te Cheikh Mouhamadou Mountakha ubbi ko nii muy lu am solo ñuy ñaan mu mu yàgg fi lool te ànd ak wér moom Sëriñ Mountakha ba fekk njëriñu lu bare bari ci daara ji daara joojo yeneen ñi fi nekk yëpp muy azhar muy yoneen yëpp yooyu dafa dugg ci li nga xam ne lu sofu la ci bind bi sëñ bi jàngale woon ci xeex ak réer ndax loolu moo ko fi indi woon muy inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqaa mooy ci xam-xam ak rafet ci lay ci lay ci lay liggéeyal yàlla su ma doon tënk rek ndax waxtu wi sax maa ngi jàll benn ba ñaari minutes mooy ne daal dundu Seexul Xadim gi dund ku barkeel la dund ku fees dal la njëriñ la dund koo xam ne kenn mës sa gis lu ne mel ci njëriñ ci yiw ci fees dal ak mbaax ci fees dal ak ay bind yu ñu mën a jëriñoo loolu taxoon na ba mu waxal boppam ne xustu xayaatan laa tura li xayri mujizatan baanat li usni xayri dund gii ma suñ borom defal guni mel kenn dootu ko gis ci kenn ne loolu nag suñu borom defaluma ko man waaye dafa bokk ci xarbaax yi mu defal yonent bi sallallahu alayhi loolu ci bind bu ñuy jëlee ci dunduk sëriñ bi ci la bokk ak li mu waxit ne baana li kulli man ko wilaaya kaw nii li rabbil alamina aaya képp ku am toq ak toq ci ci ci ci xam dara ci suñu borom ak ci ndimbalam xam nga ne man ci kéemtaani suñu borom yi ci laa bokk wax ne la ashukku abadan fii kaw nii jaaral badii ajaban lil kaw nii du ma sikki sàkk mukk ci ne dëkkaaleeb suñ borom laa te damay sax di doon kéemtaan ci mboolem bi defee yëpp suñ tubaa mooy kéemtaan goo xam ne loo ko gën a xam mu lay gën a yem suñ tubaa loo ko gën a xam mu lay gën a yéem portable bi bi muy doog a génn di foto da doon yéem ñëpp léegi kenn ñëpp xam nañ ko miin nañ ko waaye suñ tubaa safaan bi la loo ko gën a xam di ko gën a jege mu lay gën a yéem kon nag li ci am solo rek mooy ñu xam ne daal suñ borom bi muy séddale ñun ñii bokk ci waa kër sëriñ bi sédd nañu fàttewuñu te sédd nañu lu rëy sedd nañu cër boo xam ne ku ko bokkut ak ñun am na lu ñu la gañee ndabul suñ tubaali ku ci sukk dara rëccu la kon nañ ko jàpp ak suñu téeméeri loxo bañ cee dellu ginnaaw xam ne euh, koo xam ne boo taqee ci moom texe àdduna ak alaaxira euh, loo bu la ci suñu borom boole war nga koo sant ni ñu koy santee nag mooy defar suñuy jikko kenn ku nekk ci ñun fexe ba mel melokaan woo xam ne ku la gis xemmeem sëriñ bi loolu rek mooy li ñu mën a defal sëñ bi sëñ bi amul lenn lu ñu ko mën a defal fi mu lu dul defar suñuy jëmm ba ku ñu gis xemmeem sëñ Tuubaa te loolu kenn ku nekk ci ñun rek mën na ci dara li Sëñ Abdoulaye waxoon ne ku ne da ngay jàpp ne sayu matt la kenn attunu say wi waaye ku ne da nga ci yor genn matt goo xam ne booy tëdd gàdd ko booy taxaw gàdd ko booy toog yor ko booy nelaw gàdd ko ca kaw waaye bu mu laal suuf mukk mu li Sëñ Muntaxa waxoon ne bu mu laal suuf ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér moom Cheikh Mamadou Muntaxa ba yéene yi mu bëgg a defal sëriñ bi yëpp mu àggale ko ñoo maa ngi siyaare kilifa yi fi teew yëpp di ko tàmbalee ci suñu waajur sëñ Hamzatu Mbàkke ak mboolem kilifa yi fi teew yëpp wax ji xam naa jaxasoo na li ma waajaloon it wax dëgg euh, matut àggut xëy na it mbokk yi ni ko doon xaale waroon naa gën nii waaye rek moom mi ngi noonu euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu tabarakallah sëriñ ci waxtaan wu am solo yi ñoo ngi lay sant bu baax a baax ci jotal gi dafa mel ne euh, li ngeen fi indi te toqal ko ci noppi ñi nga xam ne ñoo doon déglu lu ama ama am solo la biñ ci gën a jàpp rek te war koo mën a def muy kiimaan yoo xam ne eh, war nañ koo mën a jëfe ñun ñi nga xam ne ñoo topp sëñ bi saa su nekk eh, loolu mu waxoon Cheikh Ibrahima Fall ne ko doy na ma sëkk ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam asamaan si nga xam ne moo ko doon tiim ak suuf si nga xam ne moom yonente bi ci la doon dox ma di ca dox di ko tiim mu mu di ma tiim may topp mboorum yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon ñun ñi nga xam ne ñoo nekk sëñ bi nga xam ne dañoo jege lool man nañ ni mi ngi nii kon war nañoo mën a topp fi nga xam ne foofu la sëriñ bi tegoon tàkkam war nañoo mën a góorgóorlu bu baax a baax ci lépp loo xamante ne bi jàngale woon na ko ak bépp jikko boo xamante ne bi sëriñ bi radiyallahu taala anhum mele woon na ko cañ nekk ci am njàngaleem ñi nga xamante ni dañuy sàkku xam-xam ñu fonk téer yi nga xam ne sëriñ bi da koo bind lépp lu ci jàngale ñu jéem koo def tey ñun sëñ bi rek lañ am ndax benn naaru gànnaar euh, mas naa ñëw ci sëñ bi di ko seereeloo ne ko dama bëgg nga seereel ma ne ma man ab sërif la sëñ bi ne ko ab sërif nga dëgg la waaye na la biir ne day loolu doyut na ngay na ngay tañ sa bopp ci aju gi nga aju ci man aju gi nga aju ci man daal moo la gën a mën a jariñ ci doon gi nga doon ab sëriñ kon loolu koy wax am naaru gànnaar xam nga ne ñun ñi nga xam ne ñoo aju ci sëñ bi war nañoo sant bu baax a baax war nañoo topp mbooram war nañoo dox ci ay jàngaleem li sëñ Maam Moor euh, tënk lépp ci waxtu wi xëy na mënuñ cee jaaraat waaye daal liñ ci soññee mooy ñu dégluwaat ko teyit jàpp ko bu baax a baax ndax sëriñ bi lépp kiimaan la noonu ma ko mujjee léppam léppi sëriñ bi rek kiimaan la kon ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla baaxee ñu nekk ci ginnaawam war nañoo sant suñu borom subhanahu wa taala bu baax a baax kon eh, ngir xataayu waxtu wi eh, dañ leen di xamal ne rek eh, jataay bi am na amoon na gantay di sëriñ Hamza moom sëriñ Souhaïbou di koo xamante ne bi ku xam-xam ñor la kuy jàppale daayira bi di itam la koo xamante ne bii lépp sëriñ bi itam eh, ñor na ko bu baax a baax ku liggéeyal sëriñ bi ñor la kon daayira Moukhaddamatoul Khidma di ko sant bu baax a baax ci teewaay bi ak mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoom la àndal muy délégation boo xamante ne bii bu am solo la eh, muy koo xam ne itam eh, ni mu taxawoo daayira bi ci xam-xam ak ci wàll gu nekk fes na lool xëy na am na ci yoo xamante ne bii duñ ci nekk di ci yàgg waaye daal waa daayira bi li tàmbalee sëriñ Afiya Buso al imam mi nga xam ne moo jiite daayira ak mbooleem mi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam ñi ngi koy sant bu baax a baax ci mbooleem taxawaay yi e, di santaat e, sëriñ Mamor mi nga xam ne moo doon def waxtaan wi e, di leen xamal ne subaak jàmm incha allah ñi ngi am tomb boo xam ne day wax ci al ixlaas wa riya fi asri tawasul al ijtimaai muy ixlaas sellal ak ngistal ci jamono ji nga xam ne jamono la joo xamante ne bi tasukaayu xibaar yi dafa yaatu lool mel ne réseaux sociaux yi ak yu demee noonu kon ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm euh, di tomb boobu nag euh, ki koy def mooy sëriñ Abo bu Kebe euh, ñu koy ñaanal yàlla may ko tawféex ñu mën a fekkee waxtaan wi subaak jàmm incha allah kon ñu ngi dox dig daje subaak jàmm incha allah ci tomb boobu ñuy sant di ñëpp di gërëm ñëpp wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi